donc euh, dernier numéro de la semaine fa yéene ci ànd ak yéen di sant yàlla sunu borom mi ñu may ñu fekk ko tal ko di gërëm ñëpp ñu ñuy seetaan yéen euh, yéen a tax ñu toog fii di leen jéggaluwaat bu ñu amee ay jumte parce que kuy wax rek mooy jum donc ngeen euh, ñuy jéggal souvent mais yéene bi moo di di leen indil ay boroomi xam-xam wala di leen indil ñu féetewul boor bu ko defee bu waxtaan bi bëree lumière mën a jaillir ñiy seetaan mën ci am luñ ciy jànge rawatina euh, souvent ay borom xam-xam lañ fi indi ñu féetewul fenn lu ci mel ni moom Mamadou Sy Albert dañuy amal ay jàngat ah avec une trois heures sans concession sans pour lu neex ma Samba wala ma demb donc loolu mu doon loo aussi lu ñuy rafetlu doyen Mamadou Sy Albert nuyu naa la. maa ngi lay fay di la ziar di nuyu sister di nuyu waa kër gi di am mbégte aussi daje ak suñu invité yi di leen bu baax a baax. ñu tàmbali euh, présentation yi ki njëkk a ñëw laay njëkk a présenté ak tout seigneur tout mu di Moussa Diawo hmm? moo njëkk teew moom Moussa mu ngi fi depuis dix heures et quart Moussa Diawo euh, président du mouvement pour la euh, préférence nationale et il est un soutien euh, à Amadou Ba le candidat de Benno Bokk Yaakaar Moussa Diawo. jéggalu tamit euh, ci say téléspectateurs ndax il y a deux jours euh, dañu ma programme woon ci waxtaan wi waaye sama yaram sutante ba tax na mënuma woon a teew euh, tey jii nag yàlla def na tawféex teew naa fi di la nuyu di la ziar di nuyu professeur Albert ndax dama koy faral di déglu di nuyu aussi Ahmed Diallo mi nga xamante ni moom la ñu nar a seq waxtaan mais may ma ma nuyu tamit njiitu kër gi hmm. massawu ko may mënoon nduur fay dama kontaan bërki bi bi ma ko gisee ci télé bi ndax euh, bi ñu ubbee mois de mars bi dafa am lu ko daloon mu metti sénégalais yi lool boobu tamit ma bëggoon a def déplacement bi ñëw ba fii mënuma koon a def kon bu ma ñëwee toog ci kër gi di 7TV rafet na ma massawu leen massawu ko moom ci boppam nuyu ko te di ko encourager ci li muy liggéey d'accord jërëjëf Moussa Diaw Ahmed Diallo Ahmed bi mooy ñaareel yoon nga fi ñëw kon yow doo fi gan coordonnateur national du parti gox yu bees euh, bokk ci coalition Diomaye président Birama ñu ngi lay nuyu di kontaan ci invitation bi euh, di nuyu Moussa di tàmbali foofu mu daanale di njokkeel euh, Maymuna di jàmbaar di ko massawu si lu ko dal fii di yu mel noonu warul am si dëkku jàmb mm-hmm. warul am ci Sénégal donc bu mu jotee ñëpp ñaawlu nañ ko Sénégal yëpp wan nañu ne loolu warul am ci dëkk bi euh, di ko ñaanal yàlla euh, bañ ci am traumatisme mu jógaat nekk jàmbaaru jigéen bu mu doonoon continuer liggéey bu muy amal askan bi euh, di nuyu doyen Albert di naan yàlla suñu borom waxtaan bi ñu fiy def mu nekk lu nekk njëriñu askanu Sénégal. d'accord ñu ngi di kii di Abdoul Aziz Diop mu di président de la commission des cadres. de la coalition Diomaye 2024 mu di Boun Mohamed Boun Abdallah Dionne kon professeur Abdoul Aziz Diop mu ñu ngi koy xaarandi bu yegsee rek moom it ñëw bokk ci waxtaan bi ñu daal di sóobu ci tem bi thème bi la ñuy njëkk waxtaanee laataa ñuy ñëw ci la revue de la revue des journaux euh, scrutin du 24 mars le sprint final pour séduire les indécis qu'est-ce que cela vous inspire doyen Mamadou Sy Albert laay njëkk a jox kàddu souvent waaw mën nañu wax ne moom que tey c'est le dernier jour normalement à minuit campagne bi euh, day euh, day arrêté euh, samedi amul campagne dimanche c'est le jour de vote formellement la toute propagande est interdite le jour du vote même le port il est interdit de porter donc ça veut dire que dimanche moom askan bi moo ko moom moo ko yelloo maintenant tey sprint bi mooy que c'est le dernier jour bon def nañu campagne c'est vrai gàtt na mais quand même euh, am nañu euh, war nañu leen delloo njukkal. Ah, parce que quand même ah oui en en deux douze jours treize jours sillonner le pays euh, avec yeah. toute la tension qu'il y avait et puis bon à part quelques accidents des accrochages quand même dans l'ensemble c'est normal comme processus la campagne a été respectée euh, bon, il y a eu tous les de d'une campagne, c'est-à-dire que meeting, caravane, campagne de proximité, occupation des, des médias, débat. Bon, euh, c est, c est, vraiment, ils ont rempli leur mission, pour moi, tous les candidats. Maintenant, am na des inégalités. C'est clair que euh, boo xoolee euh, dernier sprint bi bon am na ñi nga xam ne euh, ils vont ils vont ils vont accélérer. les derniers jours. mais il y a, les forces moyennes, ils sont pas à une vitesse de croisière. Il y a, y, a, y quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la machine électorale. Bon, donc, euh, il faut que tous les candidats, en tout cas, nous préparent journée vie, surtout en termes de, sur deux aspects. Le dernier jour, ce qui est important, c'est la mobilisation. Deux semaines, il faut marquer la fin de la campagne. Ah, logiquement, c'est un meeting national. Tu, tu, réunis tous les alliés, tous les souteneurs, tu impact loolu lolo, quand c'est important en termes d'organisation. Lolo aussi, mooy wane askan bi am nga fi nga wëkk am nga am nga gannaaw am na ñu la jàppale c'est important pour l'image du candidat donc c'est le dernier jour candidat bi war na préparer son image. Uh-huh. une image plus soignée. Ah, il faut. Bon, donc ça. Disons, dans le discours. Voilà, bah, sur, voilà c'est-à-dire qu'au niveau de l'image, maintenant, il les deux. Ça, en tout cas, fou am des experts en communication, il faut travailler sur le, le gestuel, sur le port que li nga nar a sol, euh, ni nga nar a doxee. Bon, c'est, c'est, ça quand même euh, en termes de communication. Maintenant, le discours. il est important parce que il faut laisser un message euh, ouais, positif. Ouais. surtout baisse cette tension bi. le discours il faut vraiment nga rassurer. mémorable quoi. tu donc il faut travailler même bu dee gudd meeting bi gudd euh, trouve-toi le moyen pour préparer en une minute benn benn kaddu bi nga nar a bi yoon moom nekkul dinaa def lii dinaa def lee. que mu ngi mel ni ngay def euh, je sais pas examen par exemple devoir c'est ton dernier devoir tu as tu deux semaines de campagne c'est dur am na loo ci jàng et cetera mais sa kaddu bu mujj bi nit ñi kàddu boobu la ñuy ñibbee. bien c'est dans la conclusion rek. dans la conclusion la. c'est exactement c'est exactement war na mën a séduire le correcteur. bah voilà c'est exactement ça la conclusion. ça c'est le dernier mot que tu laisses. Mm. et ce message la il faut que tout le monde se rappelle de ce message. bien sûr ça doit être mémorable. ça il faut préparer euh, nga xam ne que jël nga kàddu. Euh, tu prépares que chose d'une minute wala pour les surtout pour les journalistes que nit ñi mën a capter le dernier mot euh, et loolu je crois que bon heureusement quand même que ce qui encourageant di campagne bi euh, c'est vrai que am nañ novice ñi nga xam ne mësuñu def campagne présidentielle mais dans l'ensemble bon c'est des euh, am nañu expérience quand même majorité bi am nañu expérience et loolu ça a quand même ça enrichit euh, ça enrichit bon maintenant peut-être un dernier mot sur euh, le sprint bon il faut pas faire de faux pas <laughs> non c'est vrai c'est que le, le dernier jour il est il peut être fatal relais 4 fois 100 kii ñuy mujjee jox témoin bi ah pas de pa de mën na corriger comme mën na ñëw jël yoonam bi yëpp këpp ko donc sprint final bi Pas de faux pas. Non, si tu fais un faux ouais, pas, ouais. c'est clair que tu, tu compromets ah analyse bi am na solo waa papa papa. Euh, Diallo. dégg nga analyse bi mais xaar ma jox Moussa Diaw Moussa. dégg nga analyse bi waaye moom si Albert léegi yéen si seen wàll yi ngeen féete euh, léegi ci fan bu mujj bi seen candidat dafay def. meeting dajale wala lan moo nekk ci programme bi comme ni ko doyen wax waaw jërëjëf ci fan bu mujj bi muy tey ci vendredi bi dafa am meeting national. ah fan la. Euh, meeting bu ñuy war a amal fii ci place euh, de la nation si aux dernières informations yi ma nga jot donc euh, day am meeting. meeting bi pour dajale parce que tamit euh, comme euh, candidat bi wër na fépp te man bokkoon naa ci ñi ànd ak moom di wër ah waaw donc euh, vraiment tooguñu woon Dakar rek di kii dañu dugg ci dëkk bi def Louga def Ndar def Tivaouane dem Fouta dem Linguère dans le Ferlo dem dans le Fouta Matam Ourossogui wër foofu yëpp lenn rek a ma jaaxal gisuma ko dem Bakel ci candidat yi gisuloo ku benn candidat bu dem Bakel. ah bon am na. ah mais Amadou Ba fu mu jaarul Bakel. du damay laaj. ah da ngay laajte waaw ah, non non. ok damay laajte yàlla seul le le candidat Amadou Ba foofu yëpp jaar na. ok super waaw ah, ñun moom. vraiment c'est une. matal ngeen waaw matal nañu Sénégal. ok wër nañ ko. Hmm. fa dëgg yàlla man nag waruma lépp. Hmm. mais def naa une bonne partie du nord du Sénégal. super léegi ci sprint final bi comme tey ni ko le professeur euh, waxee. ñun fi ñuy waxee rek lenn la maanaam dañu nekk ci dernier jour dernier jour bi pour ñun wax ak sénégalais yi rek moo fi des dajale nit ñi posé waat sénégalais yi ay question wax leen yan enjeu fi mu nekk nii mooy enjeu bu dimanche élection bii ñu jëm dafa différent ci élection 2000 bokkuñu ndax en l'an 2000 man fekkee naa élection dama ko couvrir sax te dama xam ni boobu élection après quarante ans wu parti socialiste Sénégal yi dañu namoon alternance président Diouf nekk candidat alors que mooy président sortant boobu alternance bi 19 mars 2000 mu am avec la président Abdoulaye Wade donc foofu nii la demee benn opposition moo am peuple bi soxla alternance nga xam ne da ko doon gis mais malgré cela le président Diouf amoon na 40 pour cent au premier tour hmm. en 2012 le président Abdoulaye Wade avait fait deux mandats mu am ay mouvement yu jug xeex troisième mandat bi mu bëgg a forcer dem troisième mandat opposition bi sénégalais yi daal di ni ko noonoo waruloo jàll yóbbu ko deuxième tour moom président sortant bi ak le président Macky Sall mi ko gagné ren jii c'est différent en 2024 l'élection ci sprint final bi ñu nekk bokkul le président sortant président Macky Sall nekkul candidat dafay dem incha allah le 2 avril dafay dem vraiment après liggéey bi mu def yëpp ci réew mi mu am beneen candidat bu mu samp moom mu samp ko coalition samp ko yeneen sénégalais samp ko muy le candidat Amadou Ba candidat du pouvoir ak de la majorité présidentielle et des sénégalais ak beaucoup de mouvement citoyen yu ànd ak moom war a jongante ak opposition yi en 2024 on parle des oppositions ñetti opposition ñoo fi am en tout cas mën nañ leen def ci ñetti pôle dafa am une opposition boo xamee ni elle est l'opposition radicale maanaam depuis 2021 moom dafa am discours boo xamante ni moom c'est c'est un discours radical mm-hmm. boo xamee ni vraiment am na yu mu indi yu bëri ci réew mi kenn du ci dellu si mais malgré que il faut la déplorer di ko regretter ba tax na boobu opposition c'est l'opposition radicale léegi mu am une deuxième opposition qui est l'opposition républicaine moom xam na ni nguur ci kii lañ koy jëlee ci ay urnes de façon démocratique lañ koy jëlee et tout ñoom tamit seen discours construit nañ ko am nañu seeni candidats ak ce que j'appelle l'opposition citoyenne maanaam il y a des mouvements de citoyen euh, soutien citoyen des personnes des citoyens comme ça yoo xam ne de la société civile yu nekk candidat d'accord donc tey jii nii may ma foofu rek ma terminer ci enjeu yi donc enjeu bi tey du question dañuy sanctionner benn président wala duñ ko fiy jëlee wala dañuy def dégagisme non non amul ku ñu fiy jëlee ki fi nekkoon pare na ay lengeem da koy joxe dem kon tey jii nii comme nekkuñu ci dégagisme dañoo nekk ci tànn tey Sénégal dimanche ak jàmm ak salaam maanaam samedi ci guddi sénégalais buy nelaw nekk électeur yore sa carte booy xalaat da xalaat dimanche bu jotee sama carte bi bu ma ko dugalee kan laa koy dugalal ak ban impact ban njeexital lay am ci réew mi. d'accord Moussa <coughs> d'accord. pare gu ma mais bu fekkee da ngay def tour de table. waaw il ma dellu si parce que. des enjeux parce que parce que li ma la laaj tontu woo. Ah. yow yaa ngi may defal. non benn benn benn. non da nga ma wax le sprint final. yaa ngi may defal cours d'histoire li taxoon. ah mais xam nga 2000 2000 alors man dama la bëggoon laaj dernière réglage yi. ci sprint final bi. lan nga a doon waaw lépp looy wax rek da nga lal ci démb. mais bu ñu la seetaanee temps bi day jeex. non du jeex may ma rek ma te non. kon instant bi sprint final la ñu wax. a. a taxañ waxtu wi. Ah. te jàllale ci lu ñu xamante ni. jàllale woo ko mais li nga fi wax nii yëpp. Mhm. boobu ba léegi yéen moom ngeen di. répété waaw dama naa laa taxañal. amul répétition ci 30 secondes wax ma. suñu candidat. dernier waaw waaw fi mu nekk nii li ñuy wax sénégalais yi mooy tànn bi ngeen di tànn dimanche. Mhm. ñu leen ci proposé mooy ñun réew mu jàmm. moo xam loolu moom ngeen doon proposé depuis début campagne bi. loolu ngeen di reprendre tey discours bi c'est ça. ah oui le discours reste le même. ñun varié wuñu maanaam ñun du ñu dugal vice président. ba pare daal ni noonu xalaatuñu ko woon wala dañuy dugal monnaie daal ni non dañu koy changer non non nous notre discours il est cohérent depuis longtemps. léegi euh, Ahmed Diallo Ahmed coordonnateur euh, gox bu gox yu bees gox yu bees dafa dem fekk ji coalition Diomaye président euh, xam nga nag alliance yi nag ay étape la parce que bu ñu seetloo doyen am na ñoo xam te ni dès l'instant mënuñu dem dañoo dem wuti ku ñuy àndal am ñoo ñoo xam te ni dañu dugal seen parrainage ñu bloqué leen ñu wut ku ñu àndal ñeneen ñi dañoo forcé forcé forcé ba sës tuddee seen bopp ay spoliés finalement amuñu gain de cause ñu wuti ku ñu ñenn ñi dañoo dem di xaar liste euh, di xaar est-ce que dina am le 24 février ou pas amul ñu xaar ba ñu jàppaat beneen date ñu xam ni les carottes sont cuites ñu door a wut fu ñu féete te yooyu yëpp ay niveau la lépp di wane ni y a calcul ci côté politique yi yéen ban instant ngeen def seen choix. Euh, Birama maa ngi lay nuyu di la euh, effectivement. lu nga wax am na solo parce que loolu day wane conviction mhm. euh, ñun gox yu bees yaa ngi fàtte anta bi parce que anta dañ ko boole si turu bi muy alliance nationale pour la transparence et l'abondance et à l'honneur du professeur Cheikh Anta mhm. euh, ñun bu ñu jàppee ne amuñu candidat la ñu ne suñu choix mooy le souverainisme mooy Sénégal da war a moomaat boppam ñu xool candidat bi nga xamante ne mooy proposé wala lu jege souverainisme muy candidat wu Pastef wala candidat bu Ousmane Sonko ñu bokk ñu njëkk dem adhéré ci coalition bi donc dem jàppale ko en terme d'idéologie parce que dañu ne fu mu toll nii Sénégal victoire u souverainisme moo fi war a am moomaat sa bopp su ma ñëwee ci grand Moussa lu mu doon wax daanaka lu mu wax yépp mun naa wax inverse bi euh, xam naa du nekk histoire nag mais dina am solo ma ñëw ci lu ma gëm ba gëm mooy Sénégal gannaaw gu ko tubaab bi nootee ba dem bàyyi leen fi benn doxalin benn architecture de gouvernement nee la nii la dëkk bi tënkoo jël leen suñu constitution ngeen copier coller jël leen suñuy norme ngeen copier coller jël leen suñu xaalis ngeen changer euh, sigle bi ngeen doxal jël leen suñuy entreprise ngeen doxal ba pare ñu contrôler leen Sénégal boobu noonu moo fi nekk depuis tubaab bi bu mu fi jógee Sénégal boobu nag bu 2000 jotee Abdoulaye Wade ñëw ne soppi dañuy soppi loolu sénégalais yi ne ko d'accord nañ dañuy soppi loolu waaye Abdoulaye Wade bu mu jëlee soppiwul dafa jël constitution bu fi newoon ba ko fi daanaka gën a dooleel président président moom bu muy ñëw président mu mënul woon. gis waaw waaw waaw moo tax man damay am nga da am solo. du ma yàgg foofu. moo tax ma ne la gis na Sénégal continuité boobu mooy. soppi bu ñu bëggoon mooy tubaab bi nu mu waxoon noonu ngeen doxalee seen réew. ñu ne ñun bëgguñu loolu dañ ko bëgg a changé Ablaye Wade dig ko askan bi ñëw jël nguur gi dafu ko. président Macky Sall ñëw dafu ko mu nekk ci benn continuité historique le Sénégal est gouverné de la même façon depuis 1960 ba léegi yoon boobu nag la Sénégal yi bëgg a dakk foofu noonu enjeu élection bi foofu la tey nag coalition Diomaye président mu ngi tëjee mbuur donc Mbour la ñuy def meeting de clôture leaders yi ñoom ñëpp ñu ngi waajal su ma jugee fii siège coalition bi laay jëm ñu àndandoo ñu ñëpp dem Mbour parce que le candidat Bassirou Diomaye Faye mu ngi dëkk Njagañaaw bokk département de Mbour donc candidat Bassirou Diomaye Faye candidat wu département de Mbour la waaye candidat wu waa Ngeexoor la donc j'en profite aussi Ngeexoor ma dëkk leen wax ngeen génn accueillir candidat Bassirou Diomaye Faye dina jaar ci yoon bi ñu àndandoo ñun ñëpp dem Mbour Euh, accueillir ko foofu wane ne aussi Sénégal euh, changement bi fii lay commencé mooy décentralisation parce que meeting de clôture yi souvent ñu si bëri dañuy ñëw defee ko biir Dakar ñu si bëri dañuy ñëw euh, fii nii fi lañuy tàmbalee fi la ñuy jeexalee comme Sénégal fii la donc mu nekk décision bu am solo bi nga xamante ne si la ñuy jëm maintenant no ku mun non ku bëgg change changer capital ku bëgg changer capital ku bëgg changer capital c'est normal man kon Dakar bi yóbbu Ziguinchor. non Ziguinchor loolu. damay loolu fekkee fekkee ñoom loolu lañ bëgg mën na nekk mais lu ma wax mooy euh, fu mu toll nii moom waxul loolu maintenant lu man man lu may wax mooy man dama bind livre avant may dem rejoindre coalition Diomaye tuddee ko Sénégal bu bees changer la gouvernance politique et redonner le pouvoir au peuple am naa sama idée yu leer si gouvernance mu war a te foofu tamit proposé nañ ci changer capital wax ko faneen donc ku nekk am nga say argument mhm. loo koy joxe maintenant lu am solo si wax ji mooy continuité mooy continuer tubaab bi nee la yow sérieux woo yow responsable yow munoo munoo doxalal sa bopp sa monnaie bopp nga ne ah d'accord naa man je suis pas encore prêt dénk naa la ko yow tey sa ndox euh, wala sa compagnie yu nga xamante ne yu am doole fii loo si bëgg moom tubaab bi ne ah yow amagoo xam-xam boobu amagoo kàttan boobu bàyyi ma doxal loxo moo tax grand Moussa moo tax grand Moussa su ma déggee sa turu parti bi yow fii nga waroon toog ànd ak ñun parce que préférence nationale moom nekkul si yoon boobu préférence nationale souverainistes si ñoo nekk di xeex pour ñu moomaat lu ñu lu ñu lu ñu bëgg donc affaire monnaie bi moom ku mu neex foofu ci préférence nationale waaw Birama may ma une minute rek ma tontu sama sama frère Ahmed Diallo man kay bàyyi ma dàq koor rek non déedéet non mais mais tamit du ma dàq koor di leen seetaan ba parce que li ma laaj <laughs> Birama les sénégalais dañu ba dañu bëgg xam nga sprint final la ñu wax sénégalais yi dañu bëgg a dégg lu bari ñu leen koy leeral xam nga monnaie muy xaalis kan moo fi <laughs> non c'est-à-dire xam nga dafa wax ni ñoom dañu def seen euh, euh, kii te ah, ni tubaab yi ñoo fi teg monnaie bi boobu ba léegi d'accord d'accord tubaab yi ñoo fi teg monnaie bi boobu ba léegi ak constitution bi ak constitu constitution bi sénégalais yi maître Abdoulaye Wade changé na ko mille 2001 nañ def ndànk nañ def ndànk sénégalais yi changé nañ ko 2001 changé waat ko par rapport bu 1959 bu ñu signé Paris waaw ak bu ñu voté waaw ak bu ñu voté 2001 continuité la. mais bu ko sénégalais yi bëggee changé ko parce que constitution yi référendum moo ko fi jëlee. 2016 am na fi 2001 kon nit ñi li ñu bëgg nañ leen bàyyi ca loolu ñu ñu 65 pour cent ñu xam ne ñoom la c'est la majorité démocratie mais léegi pour dellu si ci monnaie bi parce que la monnaie dafa am solo solo boo xamee ni da ngeen koo dugal ci débat boo xamee ni amul c'est pas parce que da nga nekk souverainiste que forcément da ngay déconstruire man souverainiste la man la préférence nationale bi may prôné c'est la souveraineté économique maanaam kattanal sa koom-koom ba nga xamee ni capitaux yi ci yow lay nekk mais noo koy defee xam nga sama différence ak ñeneen ñiy def dégage dégagiste yi xam nga dégagiste boobu puéril la ndax vraiment diw dégage diw dégage ñàkk xam adduna moo tax ñu naan diw dégage parce que amul réew ci àdduna moo xamante ni am na développement toll fi mu toll te jokkowul ak yeneen i réew si nag ñépp ci yam képp koo gis tey jii nii mu nekk réew moo xamee dañ koy coow ci àdduna dafay lëkkaloo ak yeneen i réew di koom ak yeneen réew Sénégal mënut dund en autarcie ci un monde globalisé wax naa ko sama benn interview bu paree tey dafa am ñoo xamee ni dañoo jël diw dégage diw dégage. une question rek dàgguma la dañoo ñaan la du maa ngi ñëw non du ñëw gox yu bees. mais ñi nga àndal la mu àndal tamit du ñoom. déedéet ah déet France dégage fu mu nekk. non France dégage. su candidat Bassirou Diomaye Faye maintenant soo jël benn benn. waaw non moo tax wax xam nga tamit ak lu xam nga tamit xam nga tamit. une coalition politique non may ma foofu. une coalition je t'en prie Birame. une coalition politique c'est un tout. ñëpp dañ ciy bokk mais aussi diw ki ngay àndal day ay discours lay porté bu dee gox yu bees que j'ai suivi je vous connais je vous suivi pendant les locales li ngeen doon wax. waaw ça m'avait séduit effectivement boo xoolee li ngeen bëgg. xam nga man ci diw dégage li ma ci jàng. parce que diw dégage moom dafa mel ni benn pàcc la buñ te ñoom nekkuñu fi pour weddi tuuma. ah kon ok parce que diw dégage buñ ko waxee waa FRAPP. waaw France dégage teewaguñu fi. kon naa bàyyi ba ñu am na conception ci seen France dégage. Mm-hmm. France dégage du français yi génn leen sunu réew. Mm-hmm. mais mainmise bi ngeen am ci sunu réew. alors qu'on est indépendant. la ñu bëgg mu dakk armée française armée française li ko fi bàyyi il faut que ñu lijjanti ko parce que ñun amuñu sañ-sañ dem France di fa samp ay camp militaire lu tax mu am ko fi loolu dañ ko war a lijjanti tôt ou tard sooner or later sooner or later loolu dañ koy lijjanti gis nga problème monnaie bi amul kenn kuy fier di yor monnaie boo xamante ni yow leer na la du sa monnaie monnaie boobu muy tey muy ëllëg man fan laa doon d'accord ak ñii wax naan monnaie bi moo di ñi ni dañuy changer monnaie neewuñu suba suba dañ koy changer mm. là c'est une de deux ñi wax ni changer monnaie manque d'expérience la xam nga fan lañ doon dalale sama xel mooy ñu ni tôt ou tard Sénégal dina changer monnaie mm. waaye dafa am fu mu war a jaar ba pare ñun Sénégal lan la ñu lan la ñu yeneen réew yi gëne mm-hmm. bay am seen monnaie Mauritanie bi nekk ay pays souverain di doxal seen monnaie Nigéria waaw may ma ma ñëw Rwanda. Mm-hmm. nangam nangam mm-hmm. nangam ñi fi am monnaie bu tudd franc CFA mooy asaka Afrique ah. maanaam pacc bu ndaw lañu. asaka lañu. parce mm. que. huit réew yu ndaw ñoo ko dese. dama ni. Mali Burkina Mali Burkina Niger sax ñu ngi lijjanti. mais ba léegi génnuñu ci monnaie bi non monnaie du looy xëy génn. wax que ni Mali Burkina ak Niger gi ngay tudd Sénégalais bépp Sénégalais Mali Burkina ak Niger gi ngay tudd nga baal ma mais Mali Burkina ak Niger buñ nee génn nañu CEDEAO tamit génnuñu UEMOA. c'est différent attention. moom laay wax waaw may ma foofu ma ñëw terminer xam nga lépp processus la te Sénégal. mais la monnaie est un processus le processus la monnaie de l'éco est un processus pour la CEDEAO. éco kan moo ñu ko bëgg a exiger. kan moo ñu koy exiger kan moo ko prôné kan moo ko jaay c'est pas Macron. non déedéet def na woo defal dànk. non la leen Macron di dicté euh, éco l'éco date d'avant Macron boobu Macron juddoogul bi nit ñi di wax naan dañuy def monnaie boo xamee ni on prend les huit pays de l'UEMOA. kan moo créé tour éco. waa ECOWAS. maanaam la CEDEAO ci ECO ECO CEDEAO. kon ECO ECOWAS la. oui ECOWAS c'est déjà. langue l'anglais de la CEDEAO. l'anglais daf la déranger kon non damay laaj damay laaj. l'anglais est-ce que daf la déranger. damay laaj pour ah, mu leer pour ah. boo boo sukkandikoo ci loolu. waaw après voilà. waaw d'accord léegi on revient à à ça léegi yow monnaie bi kenn neewu la Sénégal mais Sénégal 18 millions ban économie ñun la ñu am Sénégal ban koom la ñu am bu mën a téye monnaie. boo xamee ni à l'heure des grands ensembles xam nga da xool Europe. 27 pays mais Mauritanie am na koom bu mën a téye mu ne. ñee nga Mauritanie damay laajte. mais Sénégalais ñu ngi dem Mauritanie. di noppi di def yeneen ak yeneen. en matière de xam nga gis nga euh, Afrique de l'Ouest ñeent lañ fiy wax. Afrique de l'Ouest gii ñeent lañ fiy wax te lool bokk na ci enjeu yi war a am Sénégalais yi déglu ko bu baax a baax dañ lay wax Nigéria wax la Côte d'Ivoire wax la Ghana wax la Sénégal ni la ñoom ñooy locomotive économique bu Afrique de l'Ouest xam nga yeneen pays yi nga tudd yëpp bokkuñu ci je n'ai aucun kii nag problème ak pays yooyu parce que ay ay frères africains lañu te ñun dañu gëm ni Afrique dafa war a booloo dañu gëm ni Afrique dafa war a nekk dans de grands ensembles. man li ma jaaxal may dañu am suñu ay kuréel. mais may ma e waaw d'accord UEMOA forcé wuñu kenn pour nga bokk. ñeneen ñi ngay wax. bokk nañ ci yeneen i kuréel. waaw d'accord naa mais néew ma la ñoom ñi ñëw forcément ci bokk mais ah, mais ñoom af ñoom Nigéria ak ñooñu fii la ñu bokk mais dama la bëgg wax ni la yow tey jii nii ki naan la moom panafricaniste la. ba pare bëgg a créer benn monnaie national pour Sénégal kese maanaam génn UEMOA amul contradiction foofu. déjà déjà ah déet damay laajte parce que. bon xam naa non grave non monnaie monnaie bi monnaie bi ah monnaie bi dañ ko defar beneen débat. <laughs> buñ koy def beneen beneen débat parce que c'est extrêmement important non c'est très important. kenn du wax waxu monnaie. kenn ko fowee non gis nga réew kenn fooy. mais ni ñu koy waxee noonu nag bu ñu koy waxee noonu loolu mooy problème bi xam nga. xam nga vraiment fekkee dañu ne sénégalais leen wax. si lu ëpp solo ci seen dëkk mooy la monnaie ku xam nga ku si wax ñu ne la kenn du ko foowee mooy dañ ko def sujet tabou ku si wax ñu ne la lii boroom xam-xam yi ñoo si war a wax xam nga lu ñu war xam mooy le débat devait être posé euh, préférence nationale vraiment moom la ñëpp bëgg donc mais soo amee candidat soo soo demee no non waaw soo amee candidat bi nga xamante ne jubluwu si fii ba dix ans yi di jeex est-ce que moom jël na engagement balaa dix ans yi jeex mu xool lu muy fexe ba Sénégal am monnaie boppam maintenant xam nga moom nekkul nekkul si loolu il est dans la continuité historique il est dans ça. la continuité donc, dynamique. il e dans la continuité historique ba nga xamante ne la continuité dynamique je te rectifie. la continuité dynamique non tu ne tu fais tu mets des qualificatifs. ce qui est sûr c'est une continuité boo xamante ne amulul njëriñ Sénégal. ah non kooku non ce jugement là ah, njëriñ maintenant. lu am fu mu toll nii mooy sujet yoo xamante ne sujet de rupture yi Amadou Ba su faloo Sénégal ni ñu ko daan doxalee lay doxee ba léegi mooy euh, gis benn acteur politique boo xamante ne dina enrichir ay nit di baal ay entreprise di def ay euh, évasion fiscale di euh, jël ay nit yoo xamante ne parce que base politique la ñu am mu nommé leen poste jël nit Sénégal boobu noonu la ñu bëggatul fu mu toll nii ndaxte Sénégal boobu noonu. mooy la rupture. d'accord naa rupture. mën ñu ko am ak Amadou Ba. Amadou Ba maintenant continuité. xam nga démocratie nga wax am na ñu bëgg continuité. am ñoo xamante ne. Mhm. ils sont à l'aise man naa wax ñu bëgg continuité xam nga mooy ñan. yow demuloo fa te man dem naa fa mooy ñi fekk Matam. ña ma fekk Ourossogui man dama def maatam ah, man dem naa Matam. waaw kay très bien waxtaan nga ak waa Matam. xam naa leen bu baax. très bien man damaa demoon Matam 2013. man waa Matam la. waaw may ma. may ma bu dee waa Matam nga kon lii lay wax. dina la intéressé mën nañu dellu si waat ci thème bi. waaw non on revient sur le thème. dama bëgg rek am ay mbokku Matam. waaw léegi man damaa gëj Matam. il y a ah, trois xam nga may ma may ma ma ñëw. non waa élection yi di ñëw moom. waaw dafa ala kulli élection yi di ñëw. waa Matam Benno Bokk Yaakaar nga gis. Ah, xoolal ñu euh, wax la li nga bëgg dégg. dugguma ci caravane ñu ko wax. déedéet ci caravane. dama yendu maatam non may. may Birama Kamara en aucun cas élection yi di ñëw ñaari pôle ñoo def face. pôle continuité. Mhm. pôle loolu dafa leer sénégalais loolu leer na leen le pôle de la construction et le pôle de la destruction. bu dee ci construction ngeen nekkoon kay mooy continuité. la continuité dans la construction du Sénégal. ak ñoo xamee ni dañu bëgg ñëw. làmbaatu li fi nekkoon lépp ñu dindi premier ministre wax na ko démb li fi nekkoon lépp ñu dindi ko. parce que li baaxul ku sa wujj di sang doo doo sax. waaw may léegi Matam may ma léegi xam nga yéen nga may ma on vous a vu ngeen nekk àll l'œuvre waaw moom ñëw da ngeen def li ngeen mën fa bëgg a ñëw ñii bëgg ñëw musugu ñoo def bu leen neexee ngeen ay stagiaires mais ñun lañu def ay ils sont en train de tâtonner ils sont en train de mais ñoom ba léegi gisaguñ leen àll l'œuvre mais léegi mais ñi def moom hmm. li ñu def moom gis nañ ko te ñooñu li mën nañ koo juger léegi comment faire comment faire pour séduire ñi nga xamante ni dañu toog yor seen carte bokkuñu si benn parti te ba léegi seen xel mu ngi jiixi jaaxa fan laa war a voté ci waxtu yu mujj yi naka lañu ñu war a def ba ñooñu ngeen xëcc leen seen côté muy yow muy yow. man lu ma ji ci terrain bi xam nga lu ma gis ci terrain bi ma jeexal ko. déedéet ma gis ci terrain bi mooy. non man maa a wax man la posé question. waaw Aliou jeexal waaw dama jeexal ko ci lan baadu monnaie bi. lu ma gis ci terrain waaw mooy ñoo xamante ne pour ñu génn campagne. dañ leen di jox euh, ay sër rabal. Ah. jox leen 10 000 jox leen t-shirt pour ñu génn campagne. mooy camp boobu noonu. loolu lañ tàmm politique ak ñi nga xamante ne nag mën nañ topp caravane boo xamante ne ñoo ko bëggal seen bopp. di engagé wu Sénégal bëgg rupture. daw soo ba ngoon ne dañu bëgg Sénégal sans léegi ci diggante ñaar ñoom loolu moom ci diggante ñaar ñoom ci diggante ñaar ñoom am na ñoo xamee ni génn ñu euh, ngi toog seen kër ñu ngi toog seen kër ñu ngi toog seen kër c'est les électeurs les électeurs c'est pas mooy le plus grand bokkuñu ñoom ñoo war a voter may ma wax ak ñooñu waaw li may wax ak ñooñu mooy ci maatam laa koy sukkandiku Ahmed nee na Matam la dëkk. kon yow da ngay dégg. maa ngi ñëw non je te donne le débat. tu veux que je parle aux indécis. waa Matam ñoom laay waxal yow nee nga dañoo opté pour la continuité. kon defal ndànk ma ñëw non indécis yi nekk diggante Ndakaaru Thiès ak Njaaréem ak Touba ak hmm. te nekk dans les grands centres urbains les trois principales régions électorales indécis yi nekk fa parce que de l'autre côté feneen fi moom mokk na rumbax ñooñu effectivement Amadou Ba la ñuy woteel kooku dama ko teg bët mais dama koy bëgg a wax ni ko man damaa dugg Matam jiitu caravane. maa ngi nuyu xale yi ma fekkoon foofu ci wetu fleuve bi ak commerçant yi ñu toog di waxtaan bi ñu toogee di waxtaan ma ni leen bi ñu toogee di waxtaan ma ni leen man de 2013 ñëwoon naa maatam ba ma ñëwee maatam lii ma fi gisoon muy centre ville bi tollu woon nenn dafa mel ni peut-être est-ce que matoon na sax cent 150 mètres carrés mais bi ma dugg see maatam gis stade bi à droite. gis l'éclairage. loolu war nañ ko gërëmee maître Abdoulaye Wade de. déet maa ngi ñëw boo ko érigé en région de. waaw très waaw waaw mais boo ko érigé en région kooku dañ koy santé maître waaye le président Macky Sall le PSE le plan Sénégal émergent li mu def foofu loolu tamit nit ñi teg nañ ci bët may ma ma pare terminé c'est pour les indécis maanaam réew mi transformation bi mu am structurelle bi économie bi am infrastructure publique yi am biir région de Matam Ranérou Ferlo ak Kanel ak feneen ak feneen booy daw ci tali Fouta nga xam ni continuité bi ñii ku ni leen continuité du am wala destruction la ñu jëm wala rupture la ñu jëm dañ lay xoolaat ba ma nee gone gi. destruction bi ngay wax déglu ma wax la rek dafa am xaaral ma ñëw Moussa Moussa Moussa est-ce que duñu xoolaat mooy duñu xoolaat mooy. xam nga ngay sénégalais ngay sénégalais may sénégalais waaw. amoo feneen foo jëm ma feneen fu ma jëm nga ni dama bëgg defar réew mi ma ne man yëkkati sama loxo am sañ-sañ ni dama bëgg a defar réew mi nga ni ma man man doon naa defar damay continuer di defar waaye yow da nga ñëw pour toj waaw mais quand li fi nekk lépp baaxul dañ koy dindi par rupture mooy. toj déedéet waaw mooy doxalin léegi dañuy jël beneen yoon may ma ma terminer waaw Moussa en 30 secondes. en 30 secondes professeur nag. ma waaw euh, sànq ba léegi yéen waaw may sama kii la kii <laughs> ku ñëw nga ni sama kii la pour baax ko. déedéet baax en 30 secondes terminer foofu. non moom moo tooñ moom moo tar. waaw waaw léegi kon excusez wul kon. ko may ndax sama mag la. Euh, professeur moo tooñ parce que dafa tardé. waaw tardé bi nag dara warul ko dul maa ngi woon ci terrain bi <laughs> tooy man Tivaouane laa jóge nii waaw pour ñëw rek pour ñëw rek bokk ci émission bi euh, ci campagne la ñu nekk ku ci nekk fa nga nekk fa ngay représenter sa coalition mhm. foofu ngay liggéey mhm. euh, donc xat-xatu dëkk bi waaw kon man maa tooñ man mi tardé euh, parce que dama nekkoon ci campagne Tivaouane laa jóge mhm. waaye ci kaw tardé boobu ak ci kaw tooñ gi ma tooñ di ko jégalu di jégalu ñi ma seqal waxtaan bi Euh, di retrouver <laughs> sama professeur sax laa koy tuddee. Mamadou Sy Albert <laughs> Mamadou Sy Albert. Euh, di rafetlu jataay bi di rafet lu toogal toog ak ñi nga xam ne nii dama leen fekk ñu nekk ci waxtaan. waaye boo gisee xat-xat bi nekk ci réew mi ci loolu lay àddu parce que mi ngi wax infrastructure yi nga xam ne ni président Macky Sall def na ko ci réew mi mm. euh, Sénégal. ba ñu moomee sunu bopp ba léegi dëkkee guñ ko te réew bala nga ko développé mbete nga ko dëkkee gis nga Dakaaru gi ñu nekk benn fonction rek la am benn fonction politique la am Dakar waa Dakar yëpp ngi may dégg mooy sunu capital mooy sunu payu réew kon nag mënu lu dul yéene ko yiw pourquoi parce que képp ku jógee bitim réew fii ngay njëkk a wàcc bala ngaa dugg ci réew mi kon nag dakaar mënuñu ko yéene lu dul mu yànj mel na mu war mel waaye dakaar ñàkk dëkki gi ñu ñàkk dëkki suñu réew moo waral tey dakaar benn fonction politique la am mooy gis nga kii dafa bëgguñu fal candidat Amadou Ba moom dafa bëgguñu ñu fal candidat Diomaye Faye man dama bëgguñu ñu fay ñu ñu euh, fal sama candidat ñu fal sama candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne mais gis nga dakaar bu ñu falee président le 24 mars. incha allah le 25 président bi xëy may nañ ko ba jeudi bu ñu ko doon may ba. samedi sax le bu ñu ko faree day xëy le 25. président bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko falee le 24. dama li ma bëgg a wax mooy. Ah, day daal di sóobu ci liggéey bi. bien sûr parce que ñun ki nga xam ne nii moom la ñu àndal di ma Mahammed Boun Abdallah Dionne nekk jëwriñ ju njëkk ci gouvernement duru juróomi at du làmbatu du jeex du jàng. door a xam fu muy teg tànkam day daal di sóobu ci liggéey loolu tax ma wax loolu euh, fonction politique bi dakaar am mooy bu ñu falee président dimanche àllarba ñu jonkonu ko ni ko li nga diggee woon defuloo ko jonkoni bi mooy lan mooy toog nañu jonk nañu pour folli ko xam lu tax ndax euh, xelu dakaar gàttul xelu nit ñi gàttul dafa fekk ni Euh, ni réew mi bindoo ak jafe-jafe yi nga xam ne nii ñàkk dëkki réew mi daf ko daf ko daf ko indi. Mhm. loolu mooy waral jafe-jafe yi fi président bu bees bi fekk dañuy yaakaar ni moom day ñëw rek lépp mel na mu war a mel te li mu fi fekk il faut loolu rek mu loolu rek la mën a jooyanti. ndakaaroon nag ni ko comme da nga tële ndax ñun mayuñu la sax fooy amee aafiya banaan ñu fii ngay jaar ak foo fële ngay jaar parce que yaa ko waxoon ci campagne bi. ñun kon jonkoon nañ ni pour folli la lu tax loolu mooy dañu dëkkewul suñu réew mi suñu bëggee li ñuy def sotti ba kenn du ni maatam moo tane barab sàngam wala Ourossogui moo tane barab sàngam wala Ziguinchor moo tane barab sàngam nañu dëkkee réew mi ba noppi waaye doo jël benn réew nga topp tefes gi dëkke ko li ci des lépp nga bàyyi ko boobu jafe-jafe aménagement du territoire aménagement du territoire réew mi fokk ñu dëkke ko te itam dafa am benn jumte bu ñu njumte gu rëy gu ñuy def ci sunu yaatuwaayu réew soo nee Sénégal ñaata kilomètres carrés lu ñu la 196 394 kilomètres carrés 89 kilomètres carrés mais Sénégal c'est pas 196 389 kilomètres carrés c'est 394 389 kilomètres carrés lu tax pourquoi parce que on a 19 180 on a 198 000 kilomètres carrés d' espace maritime. lu tax France nekk réew bi gën a yaatu ci jamono te pourtant boo yemee ci hexagone ci métropole. France réew mu ndaw la. donte réew mag la ci biir Europe. mais France d' outre bi géej gi moo tax France nekk réew bi ñu jàpp ni ci réew yi gën a yaatu ci àddina la nekk. Sénégal ñàkk. Euh, boole 198 000 kilomètres carrés d' espace maritime bi ci sunu am-am ci suñu territoire loolu moo waral sax napp gi sooxe ci jamono yi ñuy wax. te sooxe googu napp gi sooxe loolu gis nañ ni pro yaa ngi jukki ci programme voilà na léegi sooxe googu napp gi sooxe. li mu jural réew mi ku nekk xam na ko. kon suñu bëggee dem bi ak dikk bi euh, yomb wala bu yomb it ñu xam ni Sénégal tey boo bëggoon a daw dem. foo mën a bëgg a dem ci senegal nga dem fa yomb la lu tax lan leen rek moo ñu ko mën a may ñu dëkkee réew réew mi. d'accord bokk na ci. Mhm. daaneel foofu fi may daaneele mhm. li mu wax ci affaire infrastructure lu président Macky Sall sàmm. Mhm. kenn réerewu ko mbir. waaye am na loo xam ne nii su fekkee da nga ko yemale ndakaaru da ngay yokk coono ci coonoy Dakar. su ko defee biir réew mi dañ naan a ah, comme léegi lu mel ni BRT am na. Dakar. damay dem Dakar ñam kon nag waxuma sa demee dem Dakar ñam ko. kon léegi dakaar xat-xat ba fa nekkoon war na mën a wàññeeku parce que nee nañu boo bëggee dem fa nga daan dem ci biir Ndakaaru jafe-jafe ya nga daan am doo ko am ndax BRT ñëw na ànd ak. Euh, ànd ak TER ak yeneen. mais loolu mooy mooy lan mooy fas yéene wuñoo dëkke réew mi te comme fas yéene oh. wuñ koo dëkke fas yéene wuñ koo defar. képp ku la ni am na pexe maanaam am na. Euh, fu mu mën a sukkandiku ba sénégalais yi ni suñu réew mi day xar kanam gi soppeeku na te waxoo sénégalais yi ni bala ñoo soppi xar kanam gi nañ ko dëkkee ba noppi. d'accord du sotti. du sotti ab professeur Abdoul Aziz Diop moo jiite un euh, pacte institutionnel pour un sursaut citoyen. pacte institutionnel euh, de défense des institutions de la République et de la démocratie. sursaut bi ñu ci boole nag. non sursaut citoyen kooku. ay intellectuel la yoo xam ne nii ñoom ñoo créé sursaut citoyen waaw ñoom itam dañ ni dañuy défendre institution de la république mais yow euh, sa sa pacte mooy pacte. institutionnel pour la défense des institutions de la république et de la démocratie sénégalaise PI. baalu pacte bi la na ko bu ko neexee. <laughs> waaye man sama le pacte institutionnel membre la ci coalition John 2024. Euh, donc man sama candidat à cette élection présidentielle c'est Mohamed. Euh, professeur il faut que nga yëkkati tuuma nag. parce que depuis bismillah rumeur yi daw aussi en un minute. waaw xam nga rumeur moom fi lañ ko fekk. fi lañ ko koy bàyyi. mais dama bëgg nga leeral askan wi rek que ni il se porte très bien macha allah. parce que Mfox bi mu ngi tas dëkk bi fi mu toll nii. waaw euh, rumeur bi man dama ci teg sa dama ci lu ma xam la. parce que mënoo nekk ci coalition bu day ni coalition Dionne euh, 2024 ak ñi ci nekk ñëpp macha allah muy coalition bu yaatu te la fay jib xam loo ko waaye su fekkee ni dafa am ay coow lu jib aju ci benn candidat ci coalition bu mag di coalition Dionne 2024 candidat bi di Mahammed Boun Abdallah Dionne ancien premier ministre ancien directeur du bureau Afrique de l'organisation des nations unies pour le développement industriel ONUDI waaw loolu ba mu jibee directoire euh, campagne bi àdduna ci ba génn communiqué Abdoul Aziz Diop mënul wax lenn lu dul communiqué boobu directoire campagne bi génne loolu mooy communiqué bi en substance li ñuy wax ay rumeur la dara du ci dëgg li xam nga liy dëgg mooy li communiqué directoire campagne bi jox presse bi mu tas ci média amuñu ko moo tax man la en substance lan lañ ci mën a jàpp ci commune waaw li ñu mën a jàpp en substance mooy le candidat de la coalition Mahamed la coalition John 2024 Mahamed Boun Abdallah Dionne est en forme macha allah il a une façon de faire sa campagne qui est la sienne mhm. mais pendant ce temps le pays est investi par toutes celles et ceux qui sont affiliés à sa coalition maanaam ñi bokk ci coalition ñoom tas nañ ci réew mi pour jaay li nga xam ne ni moo am solo te nga wax ko mooy programme du nit ki moo am solo mais li muy teg ci loxo yi macha allah doyen euh, doyen moom si Albert ma bàyyi la nga nuyu professeur kon ñu continuer suñu débat fi mu ñu fekkoon waaw maa ngi nuyu Aziz bu baax a baax sama xarit la <laughs> Albert c'est mon ami très heureux euh, merci merci beaucoup euh, am naa mbégte vraiment discuter ak moom mm-hmm. d'autant que bon c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup mm -hmm. mais pas seulement sur les questions théoriques, mais sur les questions politiques. Dans la politique, am na a une perception qui m'intéresse beaucoup. Moi, par exemple, euh, le mot évoqué déjà, pour le sprint, c'est-à-dire que le dernier jour, là, il faut laisser par exemple l'idée euh, que Dakar dafa xat à partir de 2024 il faut que, que les gens se mettent dans la tête que dans 10 ans Dakar est invivable donc l'idée d'aménager le, le territoire national la vie communautaire l'espace familial ce message là le candidat il peut et il doit lancer ce message c'est c'est-à-dire que tu prépares l'opinion à une question essentielle c'est l'habitat mm-hmm. donc pour man c'est ça la politique c'est-à-dire comment géré par, bon, il a dit aussi, hein, les réformes institutionnelles. Ça, c'est une question théorique. Mm -hmm. Mais, donc, donc, ça, quel que soit le président de la République, le 24 mars, les réformes institutionnelles sont incontournables. Le, la, le, type de gouvernance qu'on a eu avec Senghor, avec Abdou Diouf, euh, jusqu'à Macky Sall, ce type de gouvernance ils nous mènent dans des crises cycliques. Exact. Pratiquement chaque 7 ans, chaque 8 ans, on a une crise politique au Sénégal. Exact. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Donc, il faut faire une réforme des institutions, de la justice, de la démocratie, mais quel que soit le président. Donc ce message la tey dafa war a dugg ci boppu sénégalais yëpp. D'accord. C'est-à-dire lu ñu dal ci Macky Sall tey ji mhm. Macky n'est pas candidat. mais il est au centre de cette, euh, de cette campagne. Bien sûr. Parce qu'on a mis dans nos têtes le, le malheur, c'est le président. Mmh. C'est ça le présidentialisme. Exactement. C'est à l'époque coloniale, on disait que le malheur, c'est le colon. C'est le colon. Maintenant, ce n'est plus le colon extérieur, c'est le colon local. Mmh. C'est ce système-là qu'il faut inverser. Moi, je suis d'accord avec Jamaï. Euh, il n'y a pas de sujet tabou. Ah oui, bien sûr, on doit pouvoir discuter de tout. Par exemple, la monnaie. Mais attends, <coughs> la monnaie, elle est là depuis le temps colonial. On est dans une crise cyclique, politique, économique. Mais, mais la monnaie fait partie des facteurs de crise de l'Afrique. Exemple. Est-ce qu'on va rester dans, ce, dans, ce, dans cette monnaie-là alors que dans 20 ans, dans 25 ans, le monde va changer étranglé par les institutions de Bretton Woods qui nous dictent ce qu'il faut Non, même le dollar qui est si puissant. mais il est menacé par la monnaie chinoise, par la monnaie russe, mhm. par la monnaie euh, euh, euh, sud-africaine. Donc la politique monétaire mondiale dans 25 ans va changer. Mhm. Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut anticiper? Il faut anticiper dès maintenant et se dire que le, le, le franc CFA, il n'est pas tenable dans les 25 ans à venir. C'est sûr. muy changer tuddee ko ko mën di tuddee. Ça, ça c'est pas possible. veut dire que pour man l'intérêt de, de, de, cette présidentielle, c'est que, honnêtement, euh, c'est encourageant. C'est un moment de réflexion. D'accord. Les, les, gens qui ne veulent pas réfléchir, ils ne vont pas gagner. Honnêtement, quelqu'un qui fait un meeting de clôture, tu ne réfléchis pas. Tu ne peux pas avoir le, le, le, la confiance des Sénégalais. Ouais, d'accord. Ce n'est pas possible. Il faut ouais. réfléchir et faire des propositions. Surtout. Oser, parfois. O, o, oser, Absolument. je ne sais pas. Parfois. Mais en tout cas, le, la politique, c'est un propos. Oui. Exact. C'est un message. Mm -hmm. Si les gens adhèrent, ils ont confiance au message, mm -hmm. c'est au président qui sera élu ben, de décliner euh, politiquement comment, comment il va s'y faire. Mm -hmm. Et maintenant, c'est vrai, le débat entre euh, euh, le, la continuité et, et la rupture, c'est que même ça, il faut se questionner. hein, le, le, le, la rupture, c'est pas, c'est pas que. Déconstruire, pas. Non, c'est pas. La rupture, la rupture, même la les deux. Ça, la continuité, c'est un processus historique. Oui. Mais la continuité arrive à un moment donné, elle ne peut pas ne pas envisager la rupture. professeur. donc ça ça ça ça veut dire que. gis naa non xaaral professeur non non professeur. non je termine juste une minute rek je termine juste sur sur ça. vas-y vas-y pourquoi pourquoi la rupture elle est importante. tu prends les Sénégalais qui ont vingt cinq ans trente cinq ans. ils vont pas voter pour la la continuité ils ils vont pas c'est, psychologiquement c'est impossible mais par contre la rupture ils vont voter pour la rupture quelle que soit la forme de la de, de la rupture et pour man il faut que le débat permette aux gens d'aller vers une rupture positive. d'accord bon léegi. yéen ñaar li ma bëgg différencier mooy. <laughs> Amadou Ba le candidat Amadou Ba le candidat Boun Abdallah Dionne. ñoom ñëpp ci Macky Sall la ñu nekk. Amadou Ba euh, Boun Abdallah Dionne ba léegi mu ngi revendiqué ni Macky Sall mooy son patron patron un jour patron toujours. léegi est-ce qu'il y a une différence entre vos vos propos de campagne. kee dafay wax pour la continuité mais Boun Abdallah Dionne qu'est-ce la rupture wala le renouveau wala la continuité wala la parce que apparemment. Boun Abdallah Dionne su nekkee candidat c'est parce qu'on l'a pas choisi dans Benno professeur Abdoul Aziz Diop bu ñëwee jàppale bun Abdallah Dionne c'est parce qu'il voulait être candidat on l'a pas choisi donc ba tey rek ñu ngi ci mouvance présidentielle noonu laa leen di xoole léegi yow yaa ñu leeral foofu waaw euh, li ma lay leeral ci lu gàtt xam nga kii nga wax ni damay commencer ci sama bopp comme ma fi teew kii nga wax ni dafa nekk toujours ci mouvement présidentiel euh, il faut que tamit taarixam nga xam ko mais sori trop ci taarix bi maanaam ci histoire am jaru ko li am maanaam mooy waaw moom lu ko jëlee lu tax jàppalewul candidat bi nga xam ni moom la président Macky Sall tànn parce que man président Macky Sall dama tàggook moom te bi may tàggoog moom dama ko bind lettre de démission mmh, maanaam dama bind lettre président république ni ko àndatuma ak yow ci sa parti bind ba traduire ko sax en en audio ñëpp voilà bind àndatuma ak yow ci sa parti àndatuma yow ci sa ci sa cabinet liggéeyutuma ak pour pourquoi parce que man dama ñëwoon euh, bokk ci ñi nga xam ne nii seen taxawaay ci kabine mooy duma wax jàngal yiw mais xiir yiw xiir ki ñu àndal ci yiw d'accord waaw euh, nga doxal leneen kon nag man delloo naa ne li nga ma joxoon léegi damay demal sama bopp hmm. ci kaw loolu ci laa dajeeg Mahammed Boun Abdallah Dionne Mahammed Boun Abdallah Dionne soo ko attee ci ni mon patron Euh, euh, d'aujourd'hui mon patron d'hier mon patron de toujours euh, moom itam defuloo taarixam ndax am na ay kàddu yu mu jibal mooy seqatuma dara président Macky Sall candidat la te loolu depuis le 21 septembre 2023 bi mu defee sa déclaration engagé wu comme candidat léegi bu ñu ñëwee nag ci rupture bi ni ko Albert waxee Mahammed Boun Abdallah Dionne candidat de rupture la mais rupture dafa am rupture ak rupture boo ñëwee ci am réew nga bëgg ko soppi il faut que nga xar nga am nga xam xar kanamu réew mi réew mi ban xar kanam la am ngay mag di ndaw nga tudd Diomaye nga tudd Amadou Ba nga tudd Mahammed Boun Abdallah Dionne nga tudd Albert nga tudd Birama wala nga tudd Abdoul Aziz dafa am lu la war mooy lan mooy xar kanamu li ma fi fekk su ma ko bëggee soppi naka laa koy soppee te su ma koy soppi fan lay jëlee alal ji ak jan jikko lay àndal pour mu soppeeku loolu mooy tëral du Mahammed Boun Abdallah Dionne lu tax ma ni la candidat de la rupture la mais rupture intelligente boo xam ne nii du bàyyi kenn mu dem maanaam du bàyyi kenn mu des gannaaw waxee Mahammed Boun Abdallah Dionne nee na amul benn xarma yàlla ak ndaw ñi taxaw ndaw yi jonkan ni dañu bëgg a jot ci réew mi parce que wóorootuñu seeni mag amul benn xarma yàlla ak ñoom lim leen di wax rek lenn la mooy man Mahammed Boun Abdallah Dionne am na fu ma yàlla jaarale xam naa nu état mooy lan xam naa nu ñu yore réew dama bëgg li ma xam a kës néew tubaab tudde ko expérience loolu su ma àndeek ndaw ñi ma baaxe leen ko ndaw ñi ñoom itam baaxe ma lan lañ bëgg te mu méngook seen jamono comme ça ñu ànd mbagg ku nekk teg sa mbagg ci sa mbaggu morom parce que loolu la sunu hymne national woote épaule contre épaule waxul jamaay jomaay jiitul Abdou Aziz topp sa gannaaw épaule contre épaule la wax jomaay boo taxawee Abdou Aziz day ñuul teg teg mbagam ci sa mbagg ngeen dem. Mahammed Boun Abdallah Dionne wax ni ci biir ànd boobu ñeenti réforme mënul ñàkk moom la Albert wax sànq ni il faut ñu def ay réformes institutionnelles. première réforme bi nga xam ne ni moom la Mahammed Boun Abdallah Dionne di proposer réew mi mooy réforme de l' état sunu état bi toogaayam fokk ñu seetaan ko pour rawatina justice di tëddee njaaxaanaay. muy benn. réforme institutionnelle. muy réforme institutionnelle. oui ñaareel bi mooy réforme euh, éducative. waay waay mënoo ni réew di nga ko jëmale kanam da nga soppi xar kanam nga te njàngaleem xale yi bàyyiwoo ko xel muy réforme éducative mën nañ ci suux bu bu ñu continuer ci débat bi. troisième réforme bi mooy réforme territoriale léegi sànq laa ko wax. réew mi mënuñu ko defar lu dul dañ ko dëkkee. ca Sénégal ba ñu amee suñu bopp bu ñu moomee suñu bopp ba léegi dëkke ko tefes gi lañ dëkke bàyyi gannaaw réew mi léeg nag ñu am lu ñu xëpp ci biir réew mi. waaw moom waaw moom réforme yooyu ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw dinaa dinaa tontu sa relance muy réforme territoriale wax naa ko sànq ni il faut que ñu dëkk réew mi bu ñu ko bëggee soppi dernière réforme bi mooy réforme de la production Sénégal naka lañuy euh, soqalee seeni koom-koom ak ci lan la ñuy sukkandiku pour suqali koom-koom bi ci lan la war a laal gis nga réforme de la production bi moom moo waral réforme foncière maanaam suuf si ni ñu koy saax-saaxee nañ ko arrêté réforme agraire baykat bi mën a jot ci suufam ci la industrialisation bokk ak tourisme waaye nag du ñu bàyyi xel li ñu wër di environnement loolu mooy li nga xam ne ni moom mooy réforme de la production donc ñeenti réforme yooyu bu ko tuddee réforme dafa fekk ni expérience moom bi mu am ci yorinum réew ndax nekkoon na jorin ji njëkk ci gouvernement lam ko jàngal te du woon moom moo doon dogal parce que ki doon définir politique de la nation président la moom joyant yooyu la ci bëgg a indi muy réforme yooyu te ci biir joyant yooyu du ni damay ànd ak damay ànd ak xale bàyyi mag damay ànd ak màggat ñëpp ñoo ciy sóobandoo lu tax waaye waaye Ba nee na ko na ñëw fekk si ko wax na ko ko waaw Amadou Ba ma ma wax loolu ci lu gàtt euh, Amadou Ba su Amadou Ba su fekkoon ni wala pour deuxième tour même tuuti rek Amadou Ba bu fekkoon li muy wax dëgg la ci moom day jàmmarloog Mahammed Boun Abdallah Dionne ñu waxtaane réew mi jàmmarloo c'est-à-dire maanaam dañuy débat débat kan moo woo sa morom Mahammed Abdoulaye Dione moom pare woon na. pour def débat ak dëkkul sa morom xam nga lamb may dëkk ba ma dëkk non xam nga dëkk bi. mooy woo naa xam nga xam nga directoire de campagne. ñaari premier ministre seen débat war liggéeyam liggéeyu directoire de campagne mooy euh, sooke ay débat ci biir réew mi gis nga suñu démocratie tolof tolof yi ñu fi am kii représenté Diomaye ngi ni toog xam na ci. dara mars 2021 xam na dara ci juin 2023 xam na dara ci bi président dàqee Euh, élection yi li mu jural réew mi ñeenti xale ñàkk ci seen bakkan mais loolu daf lay won ni euh, réew mi am na neneen noo xam ne nii bu ñu ko bu ñu ko ko yorewul yorewul du dem li tax li tax jéyee ma jeexal foofu li tax jéyee yooyu parce que réew mi dañ ko waxtaanewul gis nga li xale yi di fippu nekk ci mbedd mi ñu tey njot ci réew mi parce que amatuñu yaakaar ci seen i mag ak seen i ndijaay su fekkoon ni réew mi dañ koy waxtaanee du deme noonu pourquoi parce que. ñi seen xam-xam gouvernance li ñi seen xam màcc dëgg ci yorinu réew ñooñu ñoom ñuy mujj fës waaye du ku mu neex nga sóobu ci politique toj jàng nu ñuy defaree cocktail molotov di di di di di di yóbbu jafe-jafe ki nga bokk réew mi te mënoo koo rey. d'accord euh, Diao. waaw yaa ngi déglu nga sa professeur léegi kon dama bëgg léegi ñu concentré wu ci débat bi ngeen wax ñu waxtu yu mujj yi comment convaincre les indécis ndax wax nekkatul programme programme bi élaboré nañ ku waroon dégg-dégg nga ku bëggoon dégg-dégg nga mais dernière minute bi qu'est-ce qu'il y a à faire doyen wax na ko lenn mm-hmm. na discours bi ñuy xaar mooy benn discours calme mm-hmm. apaisé mm-hmm. parce que discours boobu mooy lu ñuy retenir ci campagne bi yëpp ci candidat bi mm-hmm. di fi waat ay cocktail molotov président di woote amnistie di woote jàmm ñuy delloo si waat remettre le couteau dans la plaie moi je pense que moment bi du taxul loolu nit ñi voté léegi nañu ñëw kon ci discours bi mën a dalal xel yi pour nit ñi voté leen léegi euh, Diaw vous avez la parole. waaw jërëjëf Birama xam nga nag euh, ça va me na na bar de. dafay bar <laughs> waaw mais comme dama professeur la day jël temps. waa de na bar ni mu nekkee professeur tamit di <laughs> na bar bu baru tamit dama lay. sama defal dàgg mais xam nga boo ma laajee tamit ma toogal fii. war wax ak sénégalais yi. la candidat Amadou Ba. def bleu Macky bi ah bleu Macky nga def. en tout cas ci tele bi bleu bi feeñ télé bi ak bii du benn. ci télé bi moom c'est plus joli. c'est plus joli waaw. <laughs> léegi dama bëgg wax ak sénégalais yi ba mu leer. parce que xam nga boo waxee ci jeunesse bi man en terme de jeunesse parce que dañuy bëgg a globaliser ni jeunesse bi. te li professeur Albert wax dafa am solo ci réflexion la nekk xam nga jeunesse bi tamit bu ñu ko bëggee globaliser ni jeunesse bi yëpp dafa bëgg rupture. man dama koy relativiser. parce que dafa am jeunesse bu ma gis tamit. peut-être une partie de la jeunesse des centres urbains loolu laa mën a wax ndax man réew mi dama fiy mhm. mais jeunesse bi ma gis dans le monde rural juste jeunesse bi ma gis ci la pays profond. xale yi ma doon waxtaanal ca Matam dañ ni ma. grand man may ma rek waaw c'est important. parce que tu gis nga réew. Dakar kese ba xaaral ma wax la parce que dama faa dem dugg Fuuta di waxtaan ak nit ñi. xam nga lan la ma wax dañu ma bu ñu déggee nit déglu rek bu ñu déggee nit maa ngi leen di nuyu bu baax xale yu kii ñu ni ma bu ñu déggee nit mu toog ca Ndakaaru ci télé naan. Macky Sall deful dara ci réew mi pour ñun kooku xel mi daa des dañ ko war a jàpp yóbbu ko ci hôpital psychiatrique loolu la ma génn gone wax il a peut-être 21 ans. il a très bien mais c'est important parce que c'est un discours boo xamee ni du moom kese maanaam am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñoom gis-gis boobu la ñu am kon bu ma bëggee bu ñu bëggee jël toute la jeunesse daal tout toute la jeunesse rupture la kii. non man je pense beneen jeune booy dajeel. am na ñooñu ñooy dajeel bu gën a am esprit plus ouvert. dama am di la wax ni la. 13000 milliards de bor yi ñu bàyyil moom looloo ko teree nelaw. xam nga 13000 milliards de bor yi. da nga koy comparer ak adduna bi réew yépp am bor xam nga ban bor moo bon. parce que loolu populisme quelque part daf fee am bor bi bon mooy bor bi nga xamee ne da nga koy leb ba pare di ci yaataa yumbe mais bor bi bon tamit bor bi nga xam ne nee nga investir naa ko may ma bor bi fan la ko dugal ah mais yow boo gisee tali yi nekk ci Sénégal xam ne dugal nañ ko ci ah, nañ defante naa li fi wàdd def tali ba nekk Fuuta fee ñaata kilomètre euh, mais dama lay tali ba nekk Bakel. dem mais tali yaa ngi defar Bakel c'est très bien oui oui waaw maa ngi ñëw mais non xam nga on va parler de principe bi daal. boo bëggee débat bi neex. donc on va pas faire euh, dans le truc. dañuy def ci principe mais doo fixé wu ci benn booy boo dajal maanaam. déedéet fixé wu ma. mais tam c'est une façon de dire que man j'ai fait le pays profond maanaam tooguma biir Ndakaaru di wax ci Sénégal. ñun ñëpp ils ont fait le pays. xaaral ma ñëw waxuma ñii de. yow waxuma ñii de eh, dama ne la sama bopp laa xam <laughs> nañu jéggal <coughs> dama <coughs> ma wëree foofu yëpp da am discours yu may dégg fii ci taax yi. Mhm. bokkul ak discours ya may dégg feneen. kooku il faut ñu accepter ko. te xam ni réew mi ñëpp ko bokk. Mhm. quand on parle d'équité territoriale et d'aménagement du territoire comme ni ko professeur Abdou Aziz Diop doon waxee dama bëgg ñu xalaat bu baax a baax qu'est-ce a été fait en 12 ans en termes d'aménagement professeur bi nekkoon conseil spécial du président moom ko gën a mën a défendre sax parce que ce Sénégal là a transformé quand nañ ko accepter mais damay ñëw léegi. ci li nga doon wax sànq sànq bi sama candidat ñëw na fii wax na leen affaire réforme ñun continuité bi président Amadou Ba di wax dafa ànd ak ay réforme démb toog na fii mu ni leen dañuy réformer aussi la justice perception bi ci nit ñi am dañuy réformer day am gouvernance boo xamee ni moom du nekkati chef de partie même bu ñu ko falee président du nekk chef de parti. dafa amul parti bay doon chef de parti. dama ni la bu ñu ko bëggoon a def ci parti ba ni ko yaa ko jiite. danaan président du nekk chef de parti. kooku rupture bu mag lay def ci réew mi. ba pare daan yenn post stratégique yi nekk ci administration bi. dañuy def une sorte d' ak à candidature maanaam des critères mais yooyu opposition bi fi doon wax waa déglu non mais xam nga vous savez mënoo leen nit ki ngeen bëgg mu def lenn bu ca jubloo ngeen fànq ko ni ko waroo koo def xam nga dañu wax euh, rupture da wax ñun ñu ni leen continuité avec des réformes mais dañ leen di wax réformes yi kon justice am na mhm. gouvernance am na donc et réforme des institutions dafay am mais kooku dafa bokk sax ci ak stratégie plan Sénégal émergent loolu daf cee bokk donc il continue ça maintenant pour revenir à la question de la monnaie ma néew ma sët may ma non may ma may ma c'est important kon duñu mus a wax dinañ pare non je m'en viens non je parce que le professeur Albert dafa ni c'est un tabou ma ni non ñun defuñu ko un tabou tous les sénégalais parler de la monnaie mais monnaie bi bu ci wax aussi il faut ñu reconnaître qu'il y a un processus actuellement en cours de création d'une monnaie au niveau de la CEDEAO pour 15 États kon boo nekkee ci processus su def lu 15 États fukki réew ak juróom yow nga bëgg a génn Sénégal cundum naan damay toppandoo ji Guinée may ma Sénégal cundum ñoo bëgg seen monnaie bopp cundum ci li ñu wax ñoom ñoom cundum la ñu wax ñoom ci li ñu wax d'accord une monnaie nationale d'accord ndax ñëkkoon nañu wax une monnaie locale à Ziguinchor pour la Casamance loolu kenn farax daal di xëddeen tey jii ñu ni monnaie nationale pour Sénégal damay wax rek Sénégal cundum bëgg a génn juste 18 millions d'habitants parmi 300 millions. mais li ci am solo mooy. may ma ma terminer ay débats yoo xam te ni. ma wax ak réew mi man réew mi laay waxal réew mi dañu may déglu ma ni leen mooy discours bi nga nar a convaincre fii ak suba. xaaral ba ñëw maa ngi ñëw dama ni. aventure la ñuy bañ ak kuy làmbaatu. d'accord la ñuy bañ ku ko jox Sénégal mais may ma ma terminer. am na processus su monnaie boo xamee ni 15 pays ñoo koy def au niveau de la CEDEAO ñu tuddee ko ECO. Mhm. mu jugee ci ECOWAS di Economical Community of West African States. lool laa la bëggoon a wax. ni la lool la mais léegi bu loolu weesoo loolu mais monnaie kenn du tëb rek kii ko. le professeur Albert dafa wax ni dans cinq ans effectivement le CFA peut pas continuer dëgg la man je aussi. d'autres monnaies je vis dans j'ai vu d'autres monnaies le yuan l'euro et tout et les dollars xam naa leen bu baax c'est des processus dynamiques la monnaie la monnaie n'est pas figée xaaral ma ñëw mais Sénégal fa lay daaneele mais dama la bëgg a wax ni la tey jii nii ci débat bi nga bëgg indi ci loolu la ma ci wax daal mooy dañu nekk ci processus yàlla bu Sénégal génn ci processus boobu si on confie le Sénégal à des mains expertes yoo xam ne xam nañu gestion de l'État du ñu làmbaatu bu ñu leen falee comme ni ko kii di waxee parce que mercredi bu ñu la falee dimanche mercredi dañ lay laaj lan ak lan nga def ñun suñu candidat boo ko falee le 24 mars incha allahu rabbi le 4 avril bu présider euh, soldats si seen défilé ma leen di rendre hommage le 5 dafay commencer liggéey d'accord léegi man nag foofu noonu en tant que citoyen xam gestion de l' moom. baat boobu man ça me quoi. xam homme d' état xam gestion de l' état. mën naa la tontu boobu ba léegi on a des hommes d' état ñu xam gestion de l' taxul Sénégal génn ci situation de ndóol. kon est ce que duñu changer de paradigme da ngaa xeeb ci li nga a xeeb. est ce que génn nga dama koy xeeb. génn nga ay génn Sénégal di dem wutali Maroc. Uh-huh. di dem wutali bitim réew di dee. mais c' parce que amatuñu yaakaar ci réew mi dama nekk ci réew mi. léegi problème bi mooy tey vocabulaire yi. yaakaar lexique yi lexique yi uh-huh. est-ce que lexique yi yaakaaru leen ni tamit war nañ koo soppi. homme d'État xam gestion de l'État et cetera et cetera alors que y a que des scandales de corruption y a que des scandales de détournement de deniers publics et cetera et cetera yaa ngi ci yaa ngi ci débat euh, Diallo Diallo non loolu Diallo dama doon tontu jaaw yow yow on revient sur le débat euh, jàpp ci rek ci débat ci lay ne wax bi am na solo non tontu nga sax parce que lu nga wax yëpp am na solo je pense que les contre arguments yu ngay joxe Sénégal yu bëri eh, ñu ngi siy gis seen maa ngi lay xaar pour xool man foofu argument la léegi léegi léegi léegi lu am solo mooy dëkk bi la ñu war a waxtaanee. waaw Sénégal nu mu war a doxee ak fi ñu jëm waxtu bi ñu nekk. xam nga wax yi soo ko déggee day xaw a nduróo parce que danga dégg wax yu nga dégg fi mooy bu professeur professeur professeur maa ngi koy nuyu. mais ñoom ñaar seen wax mu waaw waaw waxtu bëri. wax xaw a nduroo gën yàgg ci poste premier ministre. waaw gouvernement Macky Sall wax yi démb lañ ko tegg premier ministre. wax yi day xaw a nduroo ndaxte yéene yi peut-être benn la. ok mooy bëgg nañu Sénégal baax loolu moom kenn du ko dindil. Hmm. doomu Sénégal amul doomu Sénégal bu yeewoo Sénégal mu xëy nga ne ko yow bëggoo Sénégal baax. waaye nu mu ko bëgg a baaxalee loolu la ñuy remettre en cause. wute gis-gis gis yi ak doxalin gi. Mhm. parce que ñu ngi wax ay réformes institution réforme justice mais ñoom réforme yooyu sax ñuy wax nuñ ko bëgg a defee baaxul. c'est-à-dire proposition yi sax am nañu leen réforme déjà mais soo càmbaree nuñ ko bëgg a changer changement bi baaxul. Mhm. Sénégal comme nuñ ko waxee askan bi ñoo bëgg coppité am fi. coppite ci gouvernance politique bi coppite ci gouvernance économique bi et coppite ci le fonctionnement du pays euh, professeur lu mu wax dafa am solo mooy dëkkee réew mi loolu mooy la cœur de l'idéologie de gox yu bees mooy gox goxaat yi la ñu war a sukkali loolu mooy tax dëkk bi dox le développement à partir de la base te loolu dañ ko. ancré territorial pourtant président Macky Sall dem na ba samp. ministre jagleel ko moom day wax day wax. commencé woon na a décongestionner la capitale créé puis. jam ñaajo peut-être wax leen jam ñaajo waaye non moom laa ma ni bi muy bi muy décongestionné. vraiment nag bu ñu ko dee wax. mais mais mais les ma ni jam ñaajo xam nga sànq dañuy wax ne Dakar dafa congestionné dafa Thiès laa xëyee tey en une heure dix minutes fii laa yegg si non nañu waxante ce pays là cest a dire avant waaw non jaaw jaaw bu nga wax dañ laa bàyyi bàyyi ma y allez-y donc non xam nga yéene yi moo tax ma ne la yéene yi ñu ngi fi président Macky équité territoriale euh, la patrie avant le parti euh, gestion sobre et vertueuse donc yéene mi moom ñu ngi fi donc fekkee na nit doo ko jugé si ay yeneen da nga koy jugé ci si doxalam. ak réalisation maintenant lu mu doxalee ak lu mu réalisé soo xoolee nga xam ne ah, xam-xam bu sori nekku ca bu mu bëggee loo nit ñi Sénégal si biir Sénégal warul woon def jam ñaar jam ñaar daanaka si Dakar la bokk. Dakar la bokk non déjà 12 ans la fi am. Ah. amul lenn. gis nga rek l'opportunité de l'État. ma ko ne plan Sénégal la jëm. bàyyi ma ko ne fu mu demoon ba 2035. dëkk bi kenn du ko dëkkee. ah non boo teer bi bàyyi ko ne. déet dama bu teer bi demee mu jugee ay ndey dem buur jóge AIBD dem Thiès. dans ce triangle de la prospérité. Mbour Thiès ah, la Sénégal yem. déedéet defal nag. waaw léegi bàyyi mu a 8 millions de Sénégalais ou 7 millions qui vivent là-bas déjà. bàyyi bàyyi ko ko mu waaw non xam nga mën nañ def nii euh, dafa xaw a niroo <laughs> léegi Diallo donc non non man du ma daanal parce que ñoom ñaa jël seen temps wax il faut ma jeexal. wax foofu waaw même ma jeexal sama argumentaire. après d'accord une minute waaw. donc dëkk bi ñu ne dañ ko bëgg a changer soo càmbaree euh, lu ñoo xamante ne yor nañ ba pare bu ñu nee dañ ko bëgg a changer luñ ko jéemee changer changement boobu moom baaxul président Macky Sall bu ñu décentralisation bu mu ñëwee 2013 ñu commencé mu am ay idées yu baax gaa yi ne ah mairie bi nañ gën a am autonomie mhm. euh, nañ leen jox financement mais loolu yëpp mujjewul sotti mairie ñu ngi gën a ndóol financement bu ñu war am amuñu ko donc lu leen dimbali sax yenn programme yu mel ni yeneen institution ñoo koy financé donc di wax ni la volonté de l'État n'a jamais été mooy dooleel gox-goxaat yi. yéen moom seen coalition dégg naa ngeen di euh, wax ni ay euh, projet Puma ay PACASEN ay projet beneen bi. Euh, PUDC voilà PUDC yooyu moom vous avez loué ces projets. non dafa baax ñun lépp lu jëm si gox-goxaat yi. baax na maintenant doxalin parce que loolu loolu bëriwul. maintenant opposant bëgg li nga bëgg ba pare ni lii au moins maa ngi koy saluer loolu tam bëriwul te non ñun waxuñu lépp bon campagne ren ñun moom ñun moom loolu moom duñ ko wax am na programme yoo xamante ne si yéene gi baax na am na maire yuy dox de si doxalin gi ah ah. si doxalin gi baaxul soo demee maire mel ni maire Ngexo ñu fa nekk amuñu xam-xam mënuñu doxal soo leen joxee parcelle jox leen financement sax duñ koy doxalee du baax moo tax may la ñu ñuy woowee ay homme d'état ay borom xam-xam. est-ce da ma kon ne. Hmm, parce que suñu demee nii moom. argumentaire bi egg. bu dee ñoom dañ laa gagné sëlëm yow boobu ba léegi. ah non fekkee fekkee fekkee. waa ngee la amet loolu waa ngee xoox man waa ngee xoox waa allah su neexee yàlla suñu borom dinañ ma fal ñu def ngee xoox boo xamante ne si kontaan maintenant loolu. parenthèse la woon maintenant dañuy ñëw. man de sama question boo ba temps bi jeex tamit booy yi dañuy. waaw bàyyi ma jeexal ko bàyyi ma pour mu mooy ku jël kàddu même bu dee une minute la mu argumenté. waaw euh, non yow kat jàpp ci rek. dañu la coupé donc dañu la coupé donc dans l' argumentaire il faut clairement dire les choses pour tënk boobu noonu comme ni ma ko waxee Abdoulaye Wade moo ko tàmbali ne soppi Abdoulaye Wade jël réew mi soppiwul mu continuer renforcer lu fi nekkoon dans la gouvernance politique constitution bu fi nekkoon da ko jël gën a dooleel président yokkal ko ay doole waaye wàññilu ko sénégalais rupture boobu ngay dégg mooy président waratul nekk buur du mi dañu war a wàññi ay dooleem loolu ñu am si ay propositions yu leer nañ sénégalais lu ñu bëgg mooy rupture sur le volet économique mooy suñu koom-koomu dëkk ñu moomal ko suñu bopp mmh. entreprise yu fi nekk di ay entreprise étrangère ñu contrôle lu ñu fiy def bu ñu def leen neex ba pare lu si mel ni euh, sunu phosphate bi xam nga dëkk ñu fiy wax yëpp ñu naan mbay dafa am solo mais yow nga am bu doy moo defar sa bopp engrais nga jël ko dénk ko indien yi suñu bëggee phosphate dem jëndee ko fële euh, sa Maroc parce que Maroc ak seen entreprise nationale bu am doole OCP ñu ngi maîtriser secteur boobu mm. nekk leader presque mondial yow nga am defoo si dara donc Sénégal lu ñu bëgg mooy koom-koomu dëkk bi parce que gox goo dem am na richesse naturelle boo xam ne exploité wuñ ko parce que ñu fi nekk soxla wuñ ko exploité lu ñu bëgg mooy dem lebi lebi plus de près de 14 milliards si 7 ans 12 euh, ans yu nga xamante ne ce budget cumulé yëpp soo ko boolee presque 40 milliards 40 euh, mille milliards la 40 mille milliards yoo xamante ne yow lu si ëpp da nga jël dem lebi ko pour mun a tabax dëkk bi daanaa sa koom-koom yow jëlee woo ko ci sa ressource naturelle sa koom-koom jëlee woo ko ci sa xam-xamu doomi dëkk sa koom-koom jëlee woo ko say pexe bopp waaye sa koom-koom mooy dem ab bi ñi nga xamante ne jàpp nga ni suñu dugalul seen loxo si dëkk bi du baax sénégalais loolu lañu bëgg mu jeex maintenant nag maintenant mhm. lu ñuy wax lu sa des mooy mhm. affaire wu euh, ñu mën a yor comme ni ñu ko fi waxee Sénégal fu mu toll nii yorin bi baaxul parce que Sénégal dëkk yu mujj si àdduna la bokk si ndaaree lañ bokk loolu benn la deuxièmement mooy Sénégal non non non non bàyyi bàyyi ma wax Sénégal. on vous a donné des mairies en 2022 Sénégal la ngeen ca def. non Sénégal non. jox nañ leen ay mairies non da ngay def cas par cas da ngay def cas par cas da ngay def cas par cas soo ñëwee ñëw non da ngay def cas par cas. am na ay mairies yoo leen fi gagné da ngay def la ngeen ca def Sénégalais yi xam ne da ngay def cas par cas da ngay def cas par cas baa may gali foofu da ngay def cas par cas. Sénégal fu mu toll nii mooy dëkk bu nga xamante ne connexion internet Fra Sénégal la gën a cher que France. Sénégal mooy dëkk bu nga xamante ne seeni autoroute à péage looy fay pour péage bi comparé ak France

te niveau de vie gën a cher dëkk bi nga xamante ne mu ngi ci dix premières puissances mondiales yi loolu mooy wan ne lu ngay doxalee sa structure économique sa modèle économique dara baaxu ci parce que a dépense seen xaalis man tey su ma demee France je dépense moins que su ma nekkee Sénégal est-ce que loolu yoon la te pourtant en France ma nekkee Sénégal ah, donc loolu mooy structure économique bi baaxul dëkk bi dañ ko war a tëggal mais nag fu ñu ko bëggalee doxal fii mu ne man bëgg naa def ay réformes man dootuma nekk chef de parti yoo xamante ne amul benn solo. vraiment c'est des réformes lu ci wax yëpp du réforme maintenant le pays là ce Sénégal. lu ñu wax lu ñu wax askan bi pour jeexal ko lu ñu wax askan bi mooy. Mhm. ñu bëgg continuer doxal ñu bëgg continuer doxalee nii. Mhm. nañ continuer di proposer loolu assumer ko ay Sénégalais lañ am nañ ci droit mhm. waaye yeneen Sénégalais gëm nañu ne rupture dafa war am. si fànn économie si wànn gouvernance politique ak doxalinu dëkk bi ak ambition yi yu nga xamante ne ambition yi ça s'inscrit dans le cadre de l'Afrique parce que au-delà du Sénégal c'est l'Afrique qui doit être fière c'est l'Afrique qui doit relever la tête c'est les Africains qui en ont marre une monnaie nationale Mohamed Boun Abdallah bëggee créer suñu monnaie nationale dinañ ko créer euh, doyen waaw doyen quelques mots ma ñëw ci Mohamed Boun Abdallah Dionne qui dit que les sociétés étrangères paient leurs impôts normalement si leurs si les sociétés étrangères paient les, leurs impôts normalement on allait pouvoir financer l'emploi des jeunes. waaw ban euh, dama bëgg a tontu avant may dellu si ci li Diallo wax dama bëgg a tontu sa laaj da nga ni euh, suba la campagne bi di jeex. tey lay jeex tey lay jeex tey oh, lan la ñuy teg ci loxo yi ñi nga xam ne nii bu ñu xëyee dimanche dañu fas yéene wote. Mm. Euh, président Mahammed Boun Abdallah Dionne juin 2023 lu jiitu. muy def déclaration de candidature am le 21 septembre 2023 juin 2023 dafa génne benn livre benn téere boo xam ne ni daf ko tuddee le lion le papillon et fable la xanaa le lion mooy l'état hmm. gaynde gi état bi la même rek ma ñëw même ma ñëw Ah, mais mais Diallo. s'il vous plaît s'il vous plaît. Diallo Diallo bon je ma mu ñëw ci la interrompre. Ah, yamb bi ak yamb dafa dafa dafa dafa dafa génne le lion en juin le lion le papillon et mooy gaynde gi Sénégal ñun ay gaynde lañ le lion mooy gaynde gi gaynde gi mooy kan. mooy état bi maanaam li nga xam ne nii moo ŋànk réew mi ñàkk ko. te war a tëdd ñaaxanaay. waaw lupa bi. maanaam papillon bi. Mm-hmm. kooku moom mooy jeune bi. parce que papillon dafa njaxlaf dafay naaw. Mm-hmm. dafa soxla jeune bi jàlloo boo déggee ni muy waxee ak euh, ni mu sawaree ci wax nga xam ne nii li muy ndaw moo tax man moo may ëpp doole ci wax moo may gën a sawar. parce que parce que moom moo dese doole. la muy muy muy muy. moo tax ñoom muy ñaareel ñeneen ñi moom commencé nañ def déclaration à domicile. léegi état bi état bi li ko war. mooy mu wutal ndaw li. yamb bi mu wutal mu non mu wutal. lëppaalup bi foo xam ne nii dooleem ak bëgg-bëggam ak gis-gisu jamonoom ndax moom moo ni sama jamono lii la méngool mu wutal ko. des euh, conditions. foo xam ne nii loola dana mën a sotti ci toogaayam gannaaw ba mu ko tàggatee ci wàllu xam-xam bu loolu wéyee. mu ni nag abe bi mooy kan mooy secteur privé mais secteur privé africain national gis nga échelle u Mahammed Boun Abdallah Dionne du échelu u Sénégal échelle Afrique de l'Ouest la ak échelle euh, euh, de de l'Afrique au sud du Sahara Union africaine c'est moom bokk na ci wax ñi wax ni bu ñu bëggee moom suñu bopp fokk ñu moom suñu xaalis waaye moom gis-gis bi mu ci am moo gën a sori bu Jomaay ak Sonko ak bosam moom Diallo lu tax parce que moom gis-gisam mooy ndëgër laay li Afrique war a am dëgg-dëgg ci wàllu mone parce que tey boo defee saytu ci xaalis yiy circuler ci Afrique mat na cinquante 54 mone te léeg-léeg am monnaie boo xam ni kenn du ko mën a wocc ak moroomam nañu génn ci loolu ñoom dañ koy ñoom dañ ciy yokk jafe-jafe ñoom waa ah, Diomaye ah. mu ni kon nañu fexe ba tëgg monnaie boo xam ne nii ñiy woote panafricanisme te ñoom ci lañ bokk ci li ñu wax ñoom day nekk monnaie boo xam ne ndëgër laay Afrique yëpp lay nekk loolu mooy évolution bi nga xam ne nii mais ma ñëw même même ma ñëw même ma ñëw même rek ma jeexal s'il te plaît. évolution bi mooy comme éco junj nañ ko jow wax na ko dañu koy topp ba Afrique am moneem boppam. waaye au niveau continental. lu tax parce que dañu bëgg a dooleel secteur privé africain pour xëyu ndaw yi deetul nekk lépp waaye nekk lu nit mën a teg bëtam. léegi juróom yi nga xam ne nag moom lay teg ci askan bi lu jiitu ñu wote dimanche mooy sa laaj. lan la ñuy teg ci loxo yi askan bi pour ëllëg le dimanche vingt euh, vingt quatre mars deux mille vingt quatre euh, doomu Sénégal war a mën a woteel af euh, Mahammed Abdoulaye Dione mën na wote mag la ndaw la góor la wala jigéen bi ci jiitu mooy sunu souveraineté national nee na sunu indépendance kenn du ko négocier parce que boo négocier sa indépendance da ngay négocier sa indépendance politique indépendance culturel indépendance sociale indépendance économique muy souveraineté national il faut que ñu moom suñu bopp ba ñëpp xam ni moom lañ suñu bopp te du kenn duñu fànq pour ñu moom suñu bopp muy benn mais rek ma ñëw même rek ma ñëw même rek ma ñëw. non plagiat même ma ñëw plagiat moom am na ci campagne bi. non même ma ñëw Mamadou Sy Albert laa koy laaj. même ma ñëw parce que boo xoolee. même ma ñëw vous n'êtes pas les seuls souverainistes de ce pays. non mais s'il vous plaît non plagiat am na parce que am na ñoo xam te ne ñoo njëkk ci benn discours. s'il vous plaît ñeneen ñi gis ni euh, masse bi. s'il vous plaît ñu ñëw. gis nga s'il vous plaît plan Sénégal émergent la ñu copier teg ma daaneel man man damay tontu ci laaj bi ñu ma laaj. ñëwuma fi pour desante kenn lenn xam naa ko mënu leen a soppi réew beneen bu tudd bu tudd neneen lu dul Sénégal Sénégal li ngeen fi fekk rek ngeen mën a soppi xar kanam gi ngeen fekk rek ci ngeen mën sukkandiku pour soppi ko mënu leen a créer beneen Sénégal man itam mënumaa créer beneen Sénégal lu xar kanam gi ma fi fekk lay soppi pour soppi ko naa moom sama bopp ba noppi parce que dafay bu ma moomul sama bopp damay sooxe ci wàllu culture économiquement ah. politiquement culturellement ak socialement ñaareel bi mooy man su bëggee moom sama bopp mais il faut nit ñi ma boole leen ñu juboo un Sénégal juste et réconcilié juboo émeute yi fi amati bu mu fi amati waaye ci kaw eh, ñu doxal li ñëpp bokk ñëpp xam ni ñoo ko bokk gis nañ ci seen bopp muy intérêt général ak consensus mooy bu ñu tolloo ba tolof tolof nar a am nañu waxtaane réew mi ba ni fii la ñuy jaar ñàkk ko ñëpp jaar fa donte am na ku jiitu kooku mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy réew mi dafa am ay meññeef am na lu feeñ lu bees lu feeñ muy pétrole ak gaz waay waay suñu demee ba loola feeñ ku nekk mu xeeñ la sa xel na ci nañu koy séddalee buñ ca àggee na nekk noo xam ne nii donte musoo laal alal ju jóge même ma ñëw pourtant même ma ñëw non ci Mouhamed Boun Abdallah Dionne wax parce que pourtant waaw pétrole beeg gaz boobu noonu am na discours bu mu ci doon tenir mais ñu bëri rafetlu wuñ ko même rek même ma ñëw Abdallah Dionne taxaw na nekk primature ni carrément ku waxati ci pétrole bi nangam ñu yóbbu la ci yoon. ma rek moom loo xamante ni ñëpp a ko bokk. noonu même même ma ñëw parce que ba mu ko am dama. même même ma tontu dinaa tontu ci loolu. dama ni soo déggee ma ni pétrole ak gaz dama bëgg a def rek lu gaaw pour joxe kàddu gi dama wax ni ressource naturelle lépp loo xam ne nii dafa nekk ci suuf si Sénégal di ko jëfandikoo. or la. mais état bi dañ koy bàyyi. ressource naturelle même tuuti rek or la. dañ koy bàyyi ci loxo yi ñi ko yor. même tuuti rek or la zircon la. phosphate la leneen la. pré président euh, euh, président euh, candidat John 2024 Mahammed Abdoulaye John nee na lépp lu fi nekk accord contrat yoo xam ne nii Sénégal gisu ci boppam contrat yooyu dañ koy tëggaat ànd ceeg ñi nga xam ñoom lañ ñoom lañ ñoom lañ ko signanteloon. loolu lu leer la. pour lan pour renégociation. des renégociation des contrats. lu tax pour ko ndax de mais nag dafa am saytu bu ci buy jiitu. saytu bi mooy ndax contrat bi méngook nag li xettali Sénégal ci moomeelam. wala du méngoo ci rapport yi yaa ngi très bien ah mais euh, nag. même ma ñëw léegi loolu mooy ñetteel bi loolu mooy ñetteel bi ñeenteel bi mooy. ñaata axe la quatre quatre axes. cinq axes la souveraineté nationale. Mhm. intérêt général consensus. souveraineté euh, même rek ma ñëw euh, gestion euh, bonne gestion des ressources naturelles qui sont une propriété de l'État parce que c'est un c'est une disposition constitutionnelle mi ngi ci constitution bi. du peuple c'est une disposition constitutionnelle maanaam askanu Sénégal moom moom meññeef yi feeñ yi feeñ yi feeñ ci dëkk bi. ñette ñeenteel bi mooy waaw mais su fekkee ni yaa moom sa bopp ba sa économie nga teg ci sa loxo sa secteur privé. am doole ngeen wax ba juboo di doxal li nga xam ne askan bi jonkan moom lay xaar ba noppi li meññ nga fexe ba loolu meññ amal njëriñ réew mi li ci topp mooy redistribution du revenu public waaye li nekk ci gafaka Sénégal te di ay revenu public loo xam ne nii ci liggéeyu askan bi ak li réew mi liggéey ci la ci la génn nañu fexe ba séddale bi nekk nekk séddale boo xam ne nii bokk na séddale bu ñu bëggee mu rafet nag il faut que ma dellu si ci li ma njëkkoon a wax mooy il faut ñu dëkk réew mi ba ku ci nekk fa nga ne am ci loo jàpp ba séddale bi mën la faa fekk. fi muy jeexalee nag mooy mooy cinquième bi sunu jeunesse leneen lañ koy doyoo dul toj taal ay pneu toj xeex xuloo manifestation politique dafa war a am. parce que loolu mënul ñàkk ci démocratie. man Abdou Aziz ci ay élections yi. même tuuti rek ma ñëw campagne bi leen leen. tout à fait doo man ci samay proposition parce que man maa yore. commission chargée wàllu recul recul liberté démocratie. même rek man maa yore man maa yore ci directoire de campagne bu John 2024 Mahammed Boun Abdallah Dionne man maa yore commission chargée des cadres commission chargée des dem na ba ci xalaatam. ci gis-gisam def proposition directoire bi ak candidat bi Sénégal war na am sax brigade de la démocratie brigade de la démocratie mooy lan mooy bu ñu tolloo ci doxu ñaxtu ñu organiser ko nit ñi def seen doxu ñaxtu parce que mosul nërmeel benn régime mhm. ñun àgg nañ foofu ci delloowaat askan bi ak xam ak yelleefam léegi ndaw ñi cinquième bi mooy ndaw ñi ndaw ñi li li président euh, Mahammed euh, Boun Abdallah Dionne wax du ndaw li dafay topp sama gannaaw di ma tàccu wala mu may xeexal wala mu may manifestel di dékku li nga xam ne nii moo jógee ci force de sécurité et de défense ndaw li damay ànd ak moom mu jël mbaggam teg sama mbagg lu man lan laa koy jëriñ mooy man am naa fu ma jaar maa ko mag am na lu ma xam lu mu xamul néew ma man homme d'état la wala damaa xam de état lu lu baax la waaye damay ànd ak man Abdoul Aziz maa mag Diallo. waaw damay ànd ak Diallo mbagam mu teg ko ci sama mbagg. ñu ànd di wuti li Sénégal jonkan ni moom la soxla bu ñu ko séenee am na fu may àgg ak moom man mi mag te mu moom mu dese kàttan ma ni ko léegi jàlloo waajal naa la ci sama li ma xam nga gindi ma ci li nga bëgg léegi mën ngeen a àgg nag ngeen yore réew mi waaye ñoom dañu yàkkamti tey mu sotti loolu moo indi sooxe bi léegi nag fi may tontu ci li mu wax ci benn lu gàtt nee na président buur la di bummi loolu war nañ ci indi yeesal ànd ceeg moom. wàññi les pouvoirs. ànd naa ceeg moom mais ñoom fi ñu jëmee. mais foofu moo gën a garaaw buur ak bummi. li ma xam nga ñoom fan la ñu jëm. waaw ma ma ma jeexal foofu. moom dana ci tontu. waaw fi ñu jëmee mooy dañuy créer un poste de vice président. Mhm. gis nga boog man sama taarix nga xam ni man maa nekkoon porte parole du mouvement du 23 juin. Mm. yore commission. communication même su yore yore commission communication du mouvement du 23 juin. booba ñoom bu ñu duggee ci politique am demewul noonu. ñun li ñu doon xeex mooy un ticket présidentiel président vice président. parce que xam nga fan lay mujj fii ci Sénégal mi ngi mujj deetul nekk président vice président. detul nekk vice présidence co-présidence lay nekk. gis nga xeexoo bi amoon diggante Thomas Sankara ak euh, Blaise Compaoré xeexoo boobu. ca la Diomaye jëm ak Sonko kon xeex bi amoon Senghor ak Mamadou Dia moo nar a am dama ñu la bi ko raw te ñu boom ci ñu boom ci ñu boom ci Thomas Sankara ñoom la ñu foofu la ñu jomaay ak Ousmane Sonko jëme non non comparaison comparaison man je préfère Mamadou Dia waaw Senghor waaw mais du bicéphalisme à la tête de l'État vous allez faire une coprésidence vous ne faites pas une vice-présidence vous faites une coprésidence mais une coprésidence mais Birama il faut ma wax parce que mais bi non question bi deux minutes la doyen Moussi Albert en deux minutes doyen Moussi Albert xam nga li ma la doon wax moom moo feeñ. campagne bi benn bloc la buy fair face à un autre bloc du ñu compare yaa Mam Mam booy Diao yaa Anta Babacar yaa euh, Mamadou Lamine Diallo ñooñu seeni programme ñëpp occulté nañ ko ñëpp ñu ngi focus ci programme Diomaye Diomaye di lijjanti li Amadou Ba di def Amadou Ba di lijjanti li Diomaye def léegi finalement ñeneen ñëpp du ñu am sax possibilité pour pour pour pour avoir le trois mais gis nga gis nga ñaari ñooñu gis nga ñaari ñooñu ni ñu defee birima birima ni ñu créé seen ñaari pôle yooyu bu nekk birama ko jokkalante bi nga wax baaxul bi ma wax moo baax jeunes yi ndaw ñi expérimenté birama stagiaire et cetera doyen birama birama nga baal ma gis nga ñaari ñooñu une seconde gis nga ñaari ñooñu képp ku ci falu xeexoo bi ñu génn dañ ci dellu non xeexoo amul xeexoo amul xeexoo idée la ñàkk wute gis-gis la idée boolewuleen non ñàkk gis-gis la itte boolewu leen itte boolewu leen itte boolewu leen non ñàkk gis-gis si Sénégal mooy ci coprésidence la ñu jëmee su Sénégal dañuy reyante mënoo fexe ba duñu reyante ñen ñooy reyante foofu Diomaye ak Sonko fokk ñu reyante eh, waaw mais ok foofu lañ jëm que bu ñuy reyante yàlla nañ ci waaw léegi mën naa la wax parce que ah, waaw baal doyen parce que man dañuy interpellé si loo xam waaw léegi tegal sa loxo foofu après nga ñëw c'est-à-dire que euh, xam nga euh, comme ni comment séduire les indices indices yi c'est pas que amuñu position ah c'est-à-dire que y a des gens qui ont pris position ñii ils sont pour euh, Diomaye euh, ñii ils sont pour Amadou Ba ñii les militants et les sympathisants ils savent comment ils vont voter dimanche l'indécis c'est la majorité silencieuse c'est-à-dire que ba tey ji jëluñu benn choix mmh. mais comment les séduire Je commence par Amadouba. Moi, je persiste à vous faire croire, euh, croire que si vous voulez gagner l'indécis, ce pas par la continuité. Parce que <coughs> euh, l'offre de Bounadalaï va vous contredire tout de suite. Parce que Bounadalaï, c'est un ancien Premier ministre, il a de l'expérience, il a un projet de société, il va tout de suite convaincre l'indécis de Amadou Ba parce qu'il va dire que moi je peux faire mieux que Amadou Ba je connais le système je connais comment l'améliorer il va être l'adversaire immédiat de Amadou Ba qui qui qui n'offre pas de perspective donc c'est pour te dire que l'indécis il faut trouver l'argumentaire l'argumentaire mi ngi fi professeur non l'argumenteuse on est dans non on est dans un débat honnêtement. je tu je prends vous le sortirai. non d'accord on a écouté pendant une heure et demie mais aujourd'hui l'indécis n'a pas choisi. parce que xam nga lan moo ko waral doyen. parce que au lieu que nga wax li baax ci sa candidat li mu offrir li baax mais yaa ngi xool sa vis-à-vis lu bon li nga ko war a jiiñ pour kenn bañ ko voter alors ko man je pense que. temps bu gàtt bi y côté mais non temps bu gàtt bi li gën mooy. nga focus sur sa candidat fexe ba génne li war a tax nit ñu votel ko keneen nga. non le pire c'est que tu ne proposes pas une perte de temps le pire c'est pas que tu es en de nuire à l'autre c'est normal y des gens ñi nga xam noonu la ñu defee politique nuire nuire voilà mais le pire c'est que toi tu ne proposes pas à l'indécis waaw ah, moom laay wax bon temps bu ci li ñu def ci temps donc c'est pour dire que euh, l'indécis il faut lui faire des propositions moi les jeunes, ils font partie de la catégorie les, euh, des indécis. mënoo wax un jeune aujourd'hui au Sénégal Diomaye ki mobilise des milliers des milliers des milliers dans quatorze régions du Sénégal nga ne ko kii cuune la nga ne ko kii li mu ah non tu peux pas tu peux pas convaincre l'indécis en lui disant que Diomaye mi ak Sonko ils vous mènent au bateau où ils vont détruire le pays, alors qu'au même moment, ils sont en train de mobiliser partout. yow lan mooy discours bi gën. non chacun a son discours. Oui. ça le discours de Sonko pour les indécis c'est clair. c'est-à-dire que nous on est l'alternative on est la rupture mais les Sénégalais ils souffrent ils ont des difficultés ils ont des problèmes ils veulent le changement du pays qui ne veut pas du changement au Sénégal. mais Amadou il a un million d'emplois qu'il propose aux oui, jeunes ça, sur des 5 propositions. ans. Oui, non, il va non. les faire. Non, non, non, non. Professeur. on n'est pas dans la même bah, logique. Non, non, allez-y après. On n'est pas, on pas dans la même logique. Moi, mon problème, la question, elle est simple. Oui. Comment faire voter les indécis Je suis dans ça. Nous avons les propositions pour les indices. Oui, mais, si tu dis un million, alors que tu as fait 12 ans, tu n'as pas fait un million, je ne vais pas te croire. C'est aussi simple que ça. Non, non, pas moi. Non, pas yo. Bon, mais je vais argumenter. Baal mu terminer, ñu def benn tour de table. Temps bi jeex waaw ah, d'accord dernier tour de table tey la ñuy def en deux minutes. voilà il faut que je sorte vraiment. dernier tour de table yëpp kay ah, deux minutes deux minutes lay doon temps bi jeex na. doyen terminé. doyen terminé xam naa leeral xam naa nu ma koy kiiyee. doyen termine ah ah. Euh, moi j'ai été très clair. oui oui non je termine en ce sens que les indices yi il faut faire des propositions. Et il y a deux propositions. C'est-à-dire ou bien tu dis que Macky il a fait du bon, je continue. Mm-hmm. les gens qui acceptent cette logique-là, les indécis peuvent aller. Mm. Mais l'autre qui dit que moi, je suis pour le changement, je suis pour la rupture, ben, à l'état actuel, psychologique, des indécis sénégalais, ils vont aller vers la rupture. waaw léegi mooy ñaari choix yooyu moo fi ne il a fait du bon je vais continuer léegi léegi léegi dernier tour de table en deux minutes mm-hmm. ñu tëj parce que temps bi temps bi jeex non temps bi jeex wax ma yow deux minutes. waaw dernier tour de table. waaw d'accord mais rapidement dama koy bëgg a tontu. donc en trente en trente secondes nga tàggoo waale. d'accord mais fi mu nekk nii boo ne Macky le président Macky douze ans yi mu fi def yàlla rek mooy def lu lu parfait toute œuvre humaine est imparfaite am na ay imperfections mais li mu def président Amadou Ba bu ñëwee da koy yokk. am na nag lu mën a jooyanti président Macky Sall kay mën nañ ko compter en vingt en ñaata. may ma douze plus douze du vingt quatre. 24 mooy mooy 2 ans yu mu yu mu génn. Euh, euh, mu génn waaw mais mais bul ma dagg parce que yag ma bàyyi woon mooy kii damay ñëw rek ci li ma waxoon. donc président Amadou Ba bu ñëwee am na lu mu ciy jooyanti wax nañ ko ay réforme day am mais li fi nekkoon lu baax lépp day woy sénégalais yi di ci bénéficier wu. loolu moom mooy continuité avec des réformes une continuité dynamique fii Sénégal jeunes yi ngeen di wax il a promis Amadou Ba s'est engagé sur un million d'emplois yoo xam ne à la transformation industrielle du Sénégal. usines yi nga xamante ni dinañ ko sanc ci biir Bawol Kajoor Fed Waalo Fuuta ak Siin ak fu ne loolu mooy employé xale yi mais aussi dañu bëgg jeunesse boo xamante ni dinañ ko former ba nga xamee ni jox ko ay compétences saa yu génnee université automatiquement day mën a liggéey mais aussi dinañ def en sorte que jeunesse bi nekk une jeunesse ki aime l'ordre républicain du jeunesse boo xamee dañ koy génnee ni ko demal ci mbedd mi nga jàpp nga ni jeunesse yi amuñu xel daal dañ leen di génnee déedéet déedéet defal ndànk loo bul ma wax loo lu waxul dama la non bul ma wax loolu ma wax dama ni la une jeunesse da nga koy tàggat tey jii ban xal ban école nga gis ñu fay def instru may ma non day ma ban ban instruction nga gis ñu def waaw d' accord xaaral ma daane l' allocation vieillesse bu ñu bi président Amadou Ba proposé pour ñi am 65 ans bu ñu amul retraite te di mag nekk ci kër yi yore ko ñu def leen tous les trois mois allocation bu ñu leen di jox ah, moom mooy allocation vieillesse minimum vieillesse bii bi ngeen di continuer xanaa 65 ans maanaam ñi amul liggéey déedéet bourse sécurité familiale maanaam ñi amul liggéey xam nga pas bi nga xam ne menuisier la amul retraite cotisé wu ko bu demee ba am 65 ans toog ci këram te mënatul liggéey waaw mais tous les trois mois way dinañ ko yokkal mais amu ko woon bul ko ko xeebal dina ko am may ma am na paa bu nga xamante ne bokk na si bourse très bien déjà pris en on augmente cent cinquante mille pareegu ma cent cinquante mille personnes ni la yokk ci quatre cent et yi may ma ma terminer may ma ter non non mais dëkk du doxee noonu mais il faut bien de la solidarité dëkk day solidaire les jeunes produits en solidarité waaw ma terminer l'autonomisation des femmes xam nga nano yi ay trois 300 lañ leen di jox président Amadou Ba nee na désormais il va rendre riche les femmes ñuy jot ay kër financement 2 millions 3 millions pour que loolu bu ñu ko liggéey dugalaat ko ci kër yi parce que ñu ci bëri ñoo yore kër yi merci beaucoup professeur ce dernier mot sama dernier mot c'est très simple mooy dama bëgg Diallo xam ne kon yéen ñaar seen adversaire c'est Diallo non <laughs> c'est le système et l'antisystème moom mun ah, même pour man pour la c'est le système face non c'est la la rupture. waaw bàyyi waaw bàyyi professeur professeur Abdoul Aziz xam nga da ma da ma laaj. Euh, moom mënuma gën a bëgg rupture. Mhm. mënul nekk. Mhm. parce que man sama taarix yëpp rupture la. Mhm. waaw euh, man sama taarix ci politique yëpp rupture la. te man ñett. ci ñetti mbir lay politique. donte 2012 euh, amoon déception wala. même tuuti même tuuti même tuuti ci ñett mais xam nga tontu wax bu mujj la bàyyi rek mu wax ko. Hmm. Euh, jox kaddu gi Diallo man sama dund yëpp rupture la. Hmm. maanaam musuma ànd ci doxalin boo xam ne nii Sénégal fi mu nekk du fi jóg. Hmm. kon nag rupture ku ko woote. man da ma fekk ma nekk ci rupture. d'accord moo tax ma ànd ak koo xam ne nii am na ñeent réforme yoo xam ne nii su ko doxalee rupture yéen bi ngeen di séentu mën ngeen cee ànd ak moom ba mu nekk lu ngeen mën a teg seen loxo. d'accord fi may jeexalee wax ko ñiy wote. parce que dañu wax ni dañuy wax ak dañuy wat dañuy dañuy dañuy yëkkati kàddu mhm. ñi nga xam ne nii xamaguñu fa kan la ñuy mhm. ma leen dalal seen xel ci leen mooy mhm. su ngeen woteelee ki tudd Mahammed Boun Abdallah Dionne nekkoon fi jëwriñ ci njëkk gouvernement maanaam du làmbatu boo ko fale day xëy rek liggéey te xam na fi muy teg tànkam ak ñi mu ànd Mahammed Boun Abdallah Dionne boobu neewul du ànd ak xale yi Sénégal ci tëggum ak defarum Sénégal ak rupture bi sénégalais yi. bi xale bi xale yi woote. day ànd ak xale yi man Abdoul Aziz comme maa ko féete mag aslëf waxoon nga ko léegi te am na fu ma jaar même tuuti rek ma ñëw te am na loolu lay bamtu pour Sénégal yi mu leer seen te am na fu mu jaar mu ni man foofu ma jaar li ma dese ci doole danaa ko baaxee sama rak mhm. ki nga xam ne nii sama jarbaat la mhm. wala ki nga xam ne sax ñoo yem ay at wala ki nga xam ne moom a mag baaxee ko pour lan pour ñu ànd wuti ndox mi ñuy séntu ñun ñëpp. d'accord ci biir ànd boobu day nekk ànd boo xam li ko lal mooy Sénégal boo xam ne nii nee nañu un Sénégal juste et réconcilié maanaam Sénégal bu boo xam état dafa tudde ñaaxaanaay. Mhm. réconcilié mooy ñu juboo ci lenn ni d'accord jërëjëf li ñàkk réew mi. bu kenn ñàgg ñag bi. donte xale nga donte da nga bëgg lu yees ak wala wala loo xam def ni. dafa jàmp. d'accord loo bëgg bëgg lu jàmp. loo bëgg-bëgg lu sotti xar kanam boo ko bëggee soppi am na diir boo ko war a mën a soppee. dëgg boo nee suñ ma falee mu soppeeku boobu wax lu dëgg. d'accord euh, Diallo tàggatoo faa nga tontu tàggatoo. tàggatoo non du ma tontu askanu Sénégal. temps bi jeex na ñun waa coalition Diomaye président. su ngeen ñu falee dimanche ci premier tour. Sénégal tàmbali na moom boppam. Sénégal mi nga xamante ne gannaaw gu ñu nootee daa am ñu fi ne. ne ñoom nooteel moo leen gënal coalition jomaay président lu mu wootee te jeunesse bi woo bëgg ko topp si sénégalais yi bëgg ko cadre yi ko kilifa diine yi bëgg ko mooy Sénégal moom koom-koomam mooy président de la république du nekkati buur du buum mi mooy dëkk bii nii fii ak at yii ñu jëm dootuñu ñee bitim réew askanu Sénégal ñu ngi leen di woo tey ngeen déglu président Diomaye Faye fële sa mbuur mu def discours de clôture ngeen xool askan bi nu ñu àndee ak moom mhm. dimanche ñu fal ñu premier tour di delluwaat di woo waa campement Ngexoox jërëjëf di leen ne jërëjëf jërëjëf mu ma doyen moom si Albert kon doyen yëf yaa ngoog kon euh, bon week-end bon week-end à aussi et bon dimanche jour de vote di souhaiter Sénégal yëpp ah mu nekk bésu jàmm ñu que que que le maire gagne. waaw que le maire gagne que le maire gagne. amoo loo ci teg amoo loo ci teg Sénégal amoo ci teg non damay nuyu damay nuyu rek. un maire qui travaille c'est le maire de Khombole. jërëjëf waaw vraiment y a des maires qui travaillent. Euh, yow nga nuyu maire Nguekho waaw non waaw professeur nuyu Mouhamed Boun Abdallah Dionne Sénégal jëm kanam jërëjëf. waa Régis léegi euh, comme nuyoo nga wax. waaw ah, mais Régis lan moo tax tey daguñu émission comme nuyoo nga wax waaw. waxal ku ngeen nuyu kon. maa ngi nuyu ñi nekk ci directoire de campagne bi waaw di leen encouragé uh-huh. sénégalais sénégalais yi nga xam ne nii fépp fu fu euh, ay nitu Mahammed Boun Abdallah Dionne dem. d'accord teeru nañ ko. d'accord yore spécimen. di leen fas yéene ko voteel. di leen le 25 mars 2022. jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant. di leen wax Massa Thion. après du dellu si Amadou Ba. Hmm? am na la après du dellu si Amadou Ba. cette TV et AZActu vous souhaite un bon ramadan.